Maalabaay Nasiru wa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 boo xam ne li ko waroon lépp ci diine def na ko Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gu mu doonoon sëtub Cheikhul Khadim liggéey liggéey yu rëy rëy ci yoonu murit Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon liggéeykat te àddina bépp xam loolu ci moom Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon patriote panafricaniste bu bëggoon am réewam koku lañ fasiyene dugg ak yéen ci ak dundam moy cheikh mouhamadul moustapha ibn cheikh mouhamadul bashir aliman سيرين مصطفى بشير مبكي ابن الشيخ محمد البشير ابن خادم الرسول مويتاو تاو سيرين بشير مكي ميغي غاني ادينا دار السلام كايل 1928 way juróom soxna Binte Jaxate moom Serigne ma xujja faafaal jaxate mi nga xam ne moog Serigne Ahmadou Asta mi jur am Amsatu ñoo bokk wenn way jur muy maam Masata Dun kon diggante bii mooy diggante bi Serigne Moustapha Bassirou génne mu gis ne kon dafa juddu ci lislaam nàmp ak murit bi ñu ko taxawoo ba mata dal sëriñ Mudu Moustapha Mbakke ko alxuraan jébbal ko sëriñ daam mu jàng fa ab diir ñu door koo jébbal sëriñ Ibra Bint am fa ab diir ñu soog koo jox nijaayam sëriñ Mawlud Jaxate fa la motule alxuraanam fa sëriñ Moustapha mokkale mokkal gu rafet def ni ay nawleem def bind ko mbind mu jub mu rafet mu aw yoon ba mu ca noppee nag sëriñ Basiiru baayam jébbal ko ki nga xam ne mu di sëriñ Habibu Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Kajoor imaamul allaama mu jàngal ko lépp li ñuy xam mu gis ne sëriñ Basiiru def na li sëriñ Tuubaa waxoon ne moom lañ war a def njaboot bi njaboot dañu leen di teg ci yoon mooy tax bu ëllëgee ñu mën a tege ci yoon wa minhu tarbiyatuka al awlaada li koy kay yanaalu baxdaha rasada loolu nag la sëriñ Basiiru Mbàkke def ci sëriñ Moustapha ba mu ci sëriñ Abibu la dellu ci loxoy sëriñ Basiiru Mbàkke mu yaral ko boppam yar bu rafet boobu nekkoon ci moom nga xam ne

ba ci Serigne Touba ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal jamono kenn ku ci nekk gëstu na la nga xam ne lii ne moom nga doon jëf ci lislaam ne di la ca kañit bu baax di ko feeñalit bu baax di la ko taggalit bu baax mel ne koo xam ne kii da ngaa dem ci toolam di ko bayal cib toolam ne képp koo xam ne kii liggéeyal nga lislaam loola la lay jàppee nee na loolu nag mooy bëgg lislaam gi nee na ku gëm Sëriñ Tuubaa la Wow. xam xàmmee sama ndeyjoor sama càmm laa yëg ni ma sëriñ Moussa yittale yëg googu moom laa doon dund ak moom ba ni ma jiitoo ak njàmbaar lañ ko mën a tuddee ndax mënees na koo tënk ci njàmbaar waaye man booba gone laa li mu wax ak man moo di fekk booba maa ngi dugg jàngu xam-xam li mu njëkk a wax ak moom mooy li mu dénk ma góorgóorlu si njàng mi ndax eh, man boo ma xamee rek mel ne xam na loolu la ma loolu laa jëkk dégg ci ay waxam ci loo xam ne eh, waxtaan la boo xam ne sama diggante ak moom loolu laa doon dund ci moom teel a yëg ak njàmbaaram ak jomam ak ñàkk gi nga xam ne ñàkk na koo tal dara lu dul responsabilité boppam masuliyaatu boppam da ko jógaale rek man nag loolu laa doon tiit ci moom teel naa ko loolu laa teel a yëg ci moom ba di métti lool ragal mu am benn gàll ay gàllankoor foofu foofu nag la mbiram dëgg dëgg sax eh, eh, tàmbalee gën a di yéeme ndax yenn bu rëy bu diis boobu ci tolluwaayam moom ci boppam diggam ak adduna ak tolluwaay sëñ Basiru boole yépp yenul ko boppam loolu sax mooy kiimaan gi ndax dafa mel ne su dugg na lëg-lëgu adduna xel fa bàyyi ko ci sa borom mu tudd ak leer bu tawee si nit yi jukko jukko lay doon jukko yi nag bu ñu ko xel ma day xel lu amal njariñ ñëpp yàlla gën koy xel ci jàmm yàlla ragal yàlla topp yàlla bàyyam fàgg ko ci yar ko ci taalibe mos ko mooy benn yoon fu mu yekkee nàkkam ci njub ak liggéey doom sëñ Bachir loolu doy na nit doon ko xam ne kii amoon na diine moom taalibe te liggéeykat ñun ñëpp xam nañ ko ci moom. Cheikh Moussa Bachir moom loolu digg moom day loo xam ne moom dañ ko susul day jë day jëf yàlla suñu borom. jàng ci moom ak taalibe bi jàng ci moom ngor jàng ci moom diine jàng ci moom jom ak ko maandute ak ko ragal yàlla ndax bis ma ànd ba bisu tey bii may wax ci moom de mosuma xam ci moom lenn lenn lenn lu ak jub ku mat sëkk te am personnalité te diñ di nit ku amu fit te mën a jaamu yàlla te way ci pas-pas lañ ko mës a xam ak dëggu ak bëgg sëriñ Tuubaa goo xam ne yi dara desu ci yéenam ci lislaam itam rëy na yaatu na kon nag ku dib jullit ku ne rek sa njort rafet na ci moom ku fonk lislaam la ku fonk alxuraan la it fu jëm fu ne bala bu dee xëy war faa jëm bala faa dem dina julli suba doo doo ko xëy te fu jullee suba ba dugg ci oto bi mu ngi ci alxuraan yi ba ba muy wàcc ku am ak taalibe ku bëgg sëriñ Tuubaa ku bëgg waajuram wa di Cheikh Amadou eh, mu yar ko jaarale ko fa ko jaarale Eh, mu doon koo xam ne eh, doxalin rafetoon na lool. ni ab sëriñu murit war a mel noonu dafa mel da ko judduwaale. li andi mu Moussa Bachir yàlla melal ko ni mu ko melal. sëriñ Bachirou dafa takkoo ak sëriñ Touba. juróom-ñaari at yu mat sëkk. yoo xam ne jonjoo na ko ak sëriñ bi. ba tax na jëlee na ci sëñ Touba loo xam ni gannaaw bu mu doonee wéy juróom. taqoo ga sëriñ Bassirou am na ci cërub boppam boo xam ne kenn fekk ko ci. loolee nag wàcc si ba yàlla jox ko Cheikh Moussa Bassirou mu jaarale ko fa mu ko war a jaarale yar ko ni ko ci yoon yu ko sëriñ tuubaa tegoon mu jël mu Moussa Bassirou teg ko ca. def ci moom éducation bu wér waaye bi ci ëpp solo mooy xamal ko kuy sëñ Touba ak fa mu ko war a teg daf ko waxoon ne ko maa ngi lay dénk dénk boo xam ni loo ca mooy dana mel ni. naaju njolloor ñu di la ca doxloo te soloy looy dal ne ko bi ci jëkk fekk maa ngi dund maay sa buntu ci Sëriñ Tuubaa nekk sa wasiila bis boo ma noppee gis képp ku ñu wax ni moom mag ci njabootu Seexal yi jàppal ni jëmm jaafane bu dara dox sa digganteeg moom lu mu joxañ na ko dagg loolu la ko sëñ Bachirou dénkoon sëñ Moussa Bachirou nag remplir ko dox ko ba mu mat sëkk. kon nag lépp loo xam ne lii kër sëñ Touba ngi fi doomi sëñ Touba yaa ngi fi suñ ñëwee ci ndigal dañ leen di bëgg téye leen sagal leen. lépp lu ñu bëgg ñu nekk ci ñoom. sëriñ Basiiru bi muy wàccub liggéey waaye juróom bi sama bàyyi tàggoog moom ci néeg bi ba noppi ñëw ci saal bi di ko wax seen Cheikh Mbacke kenn faat na nee na sëñ Moussa Basiiru mi ngi toog ci wetu sëñ seex nee na bi ma ko koy wax maa ngi xool xar kanam sëñ Moussa Basiiru booba bu bu soppi ko woon rek ma xam ne li fi Basiiru bàyyi. dana booy dëgër gu mel noonu la sëñ Moustapha def tasaare ci tasaare ci mboolem ñi mu yàq muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa nimasatu busuri kitaabullahi wa sunnatullahi ya ahtami amana ak moomu nag yàlla def na ci la ma yàlla xëy nag ci eh, bëgg a génn jàngi te moom dong laa ci yaakaar ndax te xaw ma woon ne dina mën a bàyyi am déet benn bi ci bustaan ma am benn bis nag wax ak moom ba may wax moom it xaw ma woon la ma ci bëgg danaa ko am ma xamal ko ne ko fi mu toll nii eh, gisuma ci ko bëgguma dara daal dul jàngi daal moom rek laa bëgg moom si mën a dimbali te booba yéen yéewat naa ko ba nga xam ne booba lépp booba lépp maa ko maa ko maa ko maa ko at muy tiis la moom naqari moo xam ne sonn na ci lool moo xam ne ko gannaaw sax demee booba itti ji di dama métti na ma lool waaye yàlla def muy mbirum yàlla mu yàlla dogal rek bi ci waxtaan moom mu mu mu daal di mu ko woyafal toyyu am ci yaakaar bu baax daal di mu ci ànd daal ci ànd man foofu laa ko bàyyi yàlla def am si bett mu ànd si ak man lool kon mel ni daal kon loolu ko lépp am naa ko. Eh, arakam nag moom la la la la ko la ko bàyyam defoon rek nga def arakam mu taxaw ci moom. ci te ne fi mu sëñ sëñ sëñ Cheikh Soufane mu saban coom dërëm mu sëñ Moussa mu sëñ Cheikh Soufane mu sëñ Mountakha mi fi nekk tey ak sëñ Abdou Akim ñoom ñëpp ku ci nekk boo nekkee fi bërëb suñu saa wala téléphone looy suma sama xanaa toog ci bu mag boobu ko yàlla joxoon te dund ko and ko mboolem ku nga xam ne xam na ko itam ànd ak moom dund ci loolu lépp lu jëm ci Eh, liggéeyal sëñ Touba ñor ko lépp lu mu daan def loolu rek la ndax léppam Cheikh Amadou Bachir la ko joxoon liñ ko xàmmee lépp nag mooy nangoo liggéey organisation liggéey nee nax doom yi man ne fi fii ñu toll néew néew bi nga xamante ni ñu ngi war a jàngale jikkoom ak i meloom amatul jotam amatul i wéram waaye nee nag moom mii kat lu bari jàngal na ko ko ci nee moom kat lu ko sëriñ Basiru jàngaloon jàngal na ko seen i baay nee na it ànd nañ ceeg moom bu baax a baax nee lu lépp loo xam ne lii sant nañ ko duñ ca bàyyi dara lu ñu xam moo leen ko xamal nee na bëggatu ñoo xam dara yëpp sëriñ bi xamut Lum lum len xamalu man nga programme Sëñ Moussa heure bi buma demé net da fek muy jang alcorane heure bi mi ngi ci dogi khassida ya heure yi mang ci ahsab ya ay yi mang ci wirdi ya heure ya. bi genn na ci mboloma heure bi fatuna di dallo heure bii mi ngi wax ak njabootam di xool nos mbiram. sëñ Moustapha man su ma ko bëggee def champion ci olympique yoonu murit mooy kilifteef champion la ku jiitu jiitu ku war a topp topp carte d'identité boo ko mën a jox ci àdduna booboo ko gën a te booba it day bi xam ne ëpp nañu jëriñ yëpp murit te loolu mayoon na ko nangu gee topp joxoon na ko cër boo xam ne fu mu teewal yoonu murit sag dama ci sëkk muy taalibe mu ñàkk taalibe def na ne lim la wax nekk ci moom moo nekk ci yow noonu la mel. sëñ Moustapha nag dañu koo xam ne kii dafa naqaree xam ndax fi mu jaar fépp dafa neexut a nett ci kóllëre ak bokk ci jàpp te lépp moo ma jàpp jàpp boppam. xam nga diine ak xam nga jamono ak xam nga boppam matoon na sëkk. ni mu juddoo ganee ko addina ba ni mu demee xuus na ci adduna ba génn te dara tax ko dafa set wecc. ci lépp loolu rek nag mooy li ma ci gën a yéem mooy lëgg-lëgg bu adduna boobu mu xuus dugg ci adduna xuus ko ba jàll te dara dara gàkkalu ko loolu rek man moo laa ci am lu ma ci yem lu <laughs> lu mu nekk lu ne organise ko mu gënee ndax nit ku yàlla mayoon eh, mën naa ne sax perfectionniste lu ne lu dugg lu ne la ca gën lay wut résultat ba li tubaab wax ne

neenoon na ko xam nit ku mën a kuy dégloo kuy dégloo la lu mu war a def lu xam na ko te dana ko def lu mu wërta def xam na ko te du ko def muy koo xam ne dafa am qualité yoo xam ne bu bokkutoon fi mu bokk sax ku ko am mata waxtaane waxuma laa fi mu bokk li ëpp solo ci nit mooy kilifa gu jub jub baax tabe xam boppam te fonk yàlla yaaram nitu yàlla liggéeykat yàlla may ko xolu yërmande may ko xam-xam ci lislaam may ko xam-xam ci àddina zahir ak baatin baatinu axi baaba sëriñ Bassirou toll na ci diggante Cheikh Mahamadou Fadil moo fi nekk xam naa doxinu àdduna tax mu bëgg a noppal sëriñ Bassirou ci lépp sàmm sàmm di ko sàmm itam ba dara bañ a agsi ci moom du ci biir du ci bitti loolu moom moom moo doon yitteem booba wax jeeg jëf jeeg melokaan weeg doxin weeg jëflante yi yëpp doo mën a am looy xebat ci moom ku mel noonu nag damay jàpp ne kon mooy ci li ma ko jànge mooy bi nga xam ne moom soxla bi nga xamee nag sëñ Basiru wàcc na sëñ Moustapha ci ak maam ñor gu ko sëñ Basiru ñor ak doxinam ngir da daan wax ne lu ma roy ci sëñ Basiru rek ci sëñ Touba la ko roy ndax dafa yaroo ci biir kër sëñ Touba. ku fi nekkal sëriñ bi bu bu nee fi yow loo koy liggéeyloo day takkook laxasaay ci ndiggam du sol mbaxana du soxla sol daal loolu gis naa ko seere naa ko waaw man daal taalibe laa xam ci moom bëgg sëriñ bi xaw ma leneen lu mu bëgg lu sëriñ bi. sëñ bi du yànn ko ko mu tudd <laughs> nee na moo tax bi ma ko noppee gis rek. bañ demee ba ñaanal ba noppi rek laa daal di xëy dem joxe sëñ Fallu saa bopp daal di eh, jaar ci nijaayam tàgg ko daa yëgal ko ko daal di daal di nag kon ci loolu la ne mus musta jóg jóg ci taalibe googu ba sëñ Fallu mujj na lu muy def lu njaay dem rek ci ndiggante soosu moom la koy dénk. Cheikh Abdoul Ahad doyloo ko ci fànn yëpp jël baatam ak yoon wi ak màggal gi yëpp teg ko ci loxoom. lépp moo ko daan doxal su màggalu Touba Massa jub daf daan wax ni taalib yi nga xam ne dañ may siyaare nañ ma féexal ba màggal gi jàll ndax ndigalul sëriñ bi du ma ko boole lenn. mu teg ci loo xam ne lii itam mu di kër gii nga xam ne mooy buntu jumaa ji di kër sëñ Bassirou yalla dogal moom bi mir miir señ bi ñuy mir daru menam ak ak terrasse yi yep bobo may kilifa donga yi fofu la ko don miire néeg ben néeg fa neen ma di ci xamal mu xey joxe ko sun sun sun sun ka sun sun ñi sun sun sun sun sun sun sun sun xel sun sun gis-gis ndax kër gi ni mu demee ak fi am ak ni mu placé ko am néegi di ko jox di ko joxe ñi ko ñi ko xajoo bëriwul. sëriñ Abdoulaye mii bi nga xamee ne sëñ baa ngi jébbale si sasu jumaa ji ba sëñ mu di waaj a ñëw sëñ Abdoulaye daf mu mag dafa jox sëñ Abdoulaye mii mbubb ak kaala ne ko kaala gi mën nga koo def ci sa baat waaye bu sa baay dee ñëw nan nga ko kaalawoo. ndax wóor na ma ne ak laxasaay la fi indi bay defee noonu ba oto yi départ ba ñu ñëw sëñ Ablaat mii tey fob kaala gi laxas ko ci ndigg bi sëñ Ablaat toogee ci banc bi canapé bangu photo bi nga xam ne ci la ko sëñ mu saawar a fekk daa toog ba mu yàgg mu ne ko Abdoulaye sa baay day neexatu la toogal ci kaw muy toog ci suuf yàlla ne ko sa baay day wàcc waayu doomi sëñ Tuubaa la daal di wàcc banc bi toog suuf moom sëñ Ablaat bi sëñ Moussa ne yulub rek. ba ba ne sëlëb ci buntu néeg rek dafa daal di sukk di raam wutu sëñ Abdu Lahat sëñ di ko xool ma jëm ak sëñ Moustapha ba yegg si ci moom daal di koy nuyu jëbbal ko addiye ji ne ko lii tey bëriwut ñeent fukki million yu teg la waaye soo ko laajoon ci roo it danaa ko indi te sama roo ciy jiitu ak ñi aju ci ma sëñ Abdu Lahat loxoom tekki ba ne ko sëñ Moustapha mu ne ko mbàkk mu ne ko dara jëru maa wax جف دي ستخال واخ دا نكو نغا خامني يوم القيامه لكبا سيرن توبا دا نو توك بسيرو توك ما سيرو سيدي تك سي املات فلا تو دم سيرن توبا ييب دا فا جاب نييب تا توب كين كو خامني نك جوخ كو بير باي بيتي جوخ كو بيتي باي بير دا جوخ بيرم اك بيتي ساي نام كو بارسي نام نيبم مكو مان نا سي جوخ سيرن سابو فاي وات نا سي يالا فيما توك وازو سي yan la lu leen gën a màgg amul waaye muñ si jëloon tey ji bu may dem sëñ Moustapha mi du génne xepp ci magan am kon ngeen xam ne sëñ Touba rek a fi fekke naa ko ba tey ngan googu sëñ Abdoul Khadir Ganasi waaye ñoom ñëpp a maase ëmbal ko ak cofeel ak ngërëm loo xam ne man dama ci am lu wér da ko tàmbalee ci ñi ma xamagoon ñu tase moom sëñ Abdoul Ahad ba ci sëñ Moustapha taalibe yi nag sëriñ bi li mu leen di dénk li muy dénk moo di sax ci jaamu yàlla sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te fonk liggéey bu baax te boole seen bopp te waral seen te wéral seenu gëm te am listiqaam mooy sax ci jub nee na yàlla nañu suñu borom boole dimbali amin yaa balaal alamin nee na Cheikh Moussa am ni sëñ Basiru mi nag ne lépp loo ne lépp loo xam ne moo daa dox digganteem ak président ak gouvernement bi na ko sëriñ bi Abdoulaye defoon ne wéyal na ko yéen bokk taalibeem yi. nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñi nga xam ne. ne rawatina ñi nga xam ne. seen wala seen maam sëñ Bamba ko seexaloon. ñi nga xam ne seen wala seen maam sëñ Bamba ko seexaloon. ñoom ñëpp ñu bari day nañ fi. nee na ñooñu ñëpp ñu ci bari daje nañ fi. dañu lim sax seen tur. nee danañu lim sax seen tur. ndax bëgg ñu ñu ràññee leen bu baax a baax. ndax bëgg ñu ràññee leen bu baax a baax. ñu xam ne. ñi nga xam ne seex yi nga xam ne ñoo téye yoon wi. seex yi nga xam ne ñoo téye kenn yoon wi. ginnaaw doomi sëriñ ne ginnaaw doomi sëriñ bi. ginaaw rakkam yi. ginnaaw yi. ginnaaw doomu taaw yi. ginnaaw taaw yi. ginnaaw seeni rek. ginnaaw seeni rek. ñooñu ñëpp. nee na ñooñu ñëpp. boole nañ bopp. nee boole nañ suñu bopp. takkoo fas yéene yeesal sunu njëbbal. fas yeesal sunu njëbbal. ci Cheikh Abdoul Khadir am na Cheikhul Khadim. daañu daañu lim tur rim timi tur yi nga xam ne. ñëpp joxe seen bopp tey. te xat-xat bi mayu leen ñu mën a teew ba yegg ba ba def ko ne ñi nga xam ne jot nañ sëñ bi ba def ko it. ñu koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. ñu ngi koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. ne loolu nag déglu nañ ko déglu. kuy dégg turam ku déggul turam. ku dégg turam ku dégg turam. xam ne kon. xam sa njëbal àgg na. xam ne kon sa njëbal àgg na. la nga doon yeesal àgg na. am nay seere itam. am nay seere itam. say taalibe danañ ko dégg. say taalibe ko dégg. say bokk danañ ko dégg. say xarit danañ ko dégg. ne yoon wi nag. nanu góor ba li nga xam ne. ba li nga xam ne. yàlla mayoon na ko sëñ Bamba. yàlla mayoon na ko sëñ Bamba. may ko ay magam moom mii. nu fas yéene. ndam lu ëpp loola. def ndam lu ëpp loola. ba ñu xam ne lim fi fekk. lim fi fekk yokk na ko yokk na ko. loolu noo ko war a def ne loola nag nun noo ko war a def. moom moom na mu war a mel mel na ni. nun noo ci des. nun noo ci des. nan fas yéene takku. nan fas yéene takku. te liggéey. te liggéey. dégg ndigalam. te dégg ndigalam. te jaamu yàlla ni mu ko waxee. te jaamu yàlla ni mu ko waxee. te fas yéene lu mu digle. nu def ko nam ko bëggee. ne loolu moo ñu jëme kanam. كما وارنا في الخير bokk yi seet leen jëmm yi nga xam ne bu ko xalifaab Sëñ Tuubaa woowee du dox du waaxul waaye day ñukk aw xelam ñëw ne groupe sukk ci kanamam bokk mooy Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir xool leen ko moom ak Serigne Saliou lii exemple boo xam ne ñun taalibe yëpp war nañ cee roy. lu mu digal def ko lu mu digal bàyyi ko loolu la ma taal bi yox nga xam ne xam ci moom lu jafe xam ci moom dara lu jafe la sax xam naa pas-pas bi mu ko nangul a fi mu teg te loolu suñu saa ko jëf asar gii ngay gis liggéey ndaam gi moom la ku jëkk doon liggéeyloo boobu maa nga fa man mii la daan yónni demal mi bi moom suñu murtaa jox nangam di laaj ci di laaj ci def ba léegi maa ngi kii Mbacke Ndiaye taalibe Sëñ loo xam ne tabaxkat la woon bu nekkoon maçon bu mag la woon bu nekkoon fii moom la jëloon nga xam ne maanaam moom da cee dem ba waa kër gi la delloo lépp itam waaye nag moo yore service ndaam gi lañ fi jëkk liggéey ci ci loo la ko yàlla ci loo la ko yàlla jaarale waaw yooyu la ko waral fonke la ak taalibe ak dëggu rek nag te te loolu ci loolu lañ lañ xam ba bëgg bëgg bëgg ko ñëpp dafa farloon ci moom ba ci seex Cheikh Mouhamadou Mourtada gis nga ni ko daa fekk see waxtu ne te bu ñëwee gis nga nam cey sonne gis nga na positif bi mu ci am bi mu ciy am. doomi Serigne Touba ju ne ngeen boole yéen ñëpp waa kër Serigne Basirou ka fi seen kanam liggéeyal Serigne Touba di dem ci Serigne Touba di del si fii yéen di leen wax ndigal Serigne Touba. ngeen ànd nag moom di ko def Cheikh Abdoul Ahad woo ko Touba Belel ay ngan ay yooni yooni yoon bañ na ko ba digg moom àgg digg ak moom àgg na foo xam ne tey jii néeg néeg bi mu wàcc liggéey ci Touba Belel saabu si Bachir ko liggéey daf ko daf ko jëloon ber ko ca biir buy jàng alxuraan fa lay nekk buy defi xasaayitam fa lay nekk bis bi muy wàcc léegi bi muy jógee ci nekk see nekk seex mënu batal bi di fanaan ci nekk seen suñu sabasiru bi mu ngi yëkkati xasaay ca kaw te ba mu àggee ci nekk seen suñu sabasiru fala waajee ngir wujji borom tabaraka taala te lu fa nekk suñu sabasiru ko fa def kër si basiru mbakki ak kër seex faal gi moom li leen boole mooy jëriñu njëkk njëkk yi xam nga lépp ci lu xam ci seex faal kat bu loolu jëriñ jooyee di seen wàllu basir du ko xam ndax lam lam ñemee laaj bàyyam seero sëñ Mamadou sa jaay na njuréem nga du ko laaj sëñ Mortala jaay na njuréem nga du ko laaj sëñ Ibrahima Fall dara jaay na njuréem nga du laaj sëñ sëñ tam ñëpp ku ne jaay nga la nga seexoon moom jënd jëlee ko li ne fi moom doo laaj mukk lu tax ngay def nangam wala noo defoo nangam loolu du ko laaj loolu lépp nag jàmbaar ju yi nga xam ne moom laaj ko bàyyam seera ba mu leeroon ko kon bari na lu waaye xam coono kat te Cheikh Mamadou Bachir moo la baaxee ndax moo ko laaj bàyyi misaal mi sos yoon wi ba nga mën caa doxee ci hectare bi. ndax gëmug Serigne Touba am ni mu ko mën a méngaleel moo di Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy royuwaay bi nga xam ne moom la ñu xam ne moo gën a gëm Serigne Touba ci nit ñi mbubb yi sol la ñu wuute waaye xool bi moom benn lañ ci. nee noonu yéen a gëmee Serigne Touba nee tax na kon nag ku koy roy na nga jiital ak taalibe ci sa bopp sunu kër gi nee waxoon na ne nañ leen def Baye Fall kër Serigne Touba Baye Fall kër Cheikh Ibra da ngeen bokkul mbubb waaye yéen a bokkuk bëgg yéen a bokkuk jublu. yéen a bokk it ak gëm. Cheikh Mouhamadou Moussa moom Cheikh Mouhamadou Bassir xool boo xam ne keneen mu ne Cheikh Rafal am na loo xam ni jërë nga Cheikh Mouhamadou Moussa loo xam bu la laajee mën ngaa wax ci moom bokk na ci benn nag loo xam ne des koy beral muy tur wi nga xam ne moom ñëpp koy waxaan léegi nag muy Sëñ Tuubaa man fi teg ci teg kam doon. ndax loolu bàyyi woon ko ci xel xam nga jëri Sëriñ Tuubaa ji di seen Mor Moussa ku ne xam ne ni na kam wóotu woon ndax ko waa matal ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa rek ba tey waaye ndi ko wooyee seen Mor Moussa rek bi seen Mor Fall ñëwee ah ku ne xam ne ni lan bëggoon Sëriñ Tuubaa lépp ma lan bëggoon ca magam jëm wóotu di seen Mor Moussa ma nga ca waaye mu tudd nag si am faral nag tur tur wayal na ko waaye bi sëñ Tuubaa toogee nag mu wax tur woo nag sëñ Tuubaa wan fi ñu si Abdoulaye Mbacké loolu loolu ñu bari réy na ko ci boo fi andi baatu sëñ Tuubaa sëñ Abdoulaye sëñ Tuubaa fi wax baatu la ci ci ci ci waajuru góor it ci moom la tàmbalee daanaka ndax ñu jóge waaye moo ko moo ko fi dindi ngir njàngaleem la njàngaleem la ci yoon moom yàlla ko ko yàlla ab ab xasiyam la yàlla ko saarix saarix bi ko teg mooy Cheikh moo ko yàq Cheikh Mouhamadou moo ko yàq jukk yi sëñ Tuubaa defal ci Cheikh Mamadou Bassir yëpp ak calme ak nangoo liggéey bi yëpp kon nag nan nun nan fonk bis yi mu fonkoon mooy bisub màggalu Poroxaan ak guddi gàmmu njaareem ak màggal gi nga xam ne ñun ñëpp noo ko bokk boo waaye boo xam ne jëfe nanu ko loolu nee na moom lañu ñu mujjee mu ñaandi ci ak moom nee lam leen doon wax mooy seen tàmbali bii yéen ne yéen nee na nag yéen ñu ko tàmbali li nga xam ne xamu leen ko woon ci sëriñ Basiiru mu leen ko jàngal ba ëllëg gi si biir bu ngeen fi desee yéen dong fekk xam ngeen ci moom lu bari benn doomu sëñ Touba bu mas a gis mbaxana sëñ Moustapha wala dallu sëñ Moustapha Moustapha kuy kilifaam boo ko moo ko ñaari fan sax bu la si ne bu ñu diwee nuyoo rek bu summi na mbaxana mi dafa tànk den tase yow ci biti te kooku tax mu koy def mën na ko bañ a gis bu dee sur le plan matériel waaye teewut sëñ Tuubaa gi lay delloo jukkal gis sa kilifa jub ko rek yëpp ci naa ne ci ko jàng téléphone jëkk yi nga xam ne fixé la bu ñu nee kar ñun ko sëñ Abdou Lahad lay woo day wàcc fauteuil bi toog fi suuf banque ñaari tànkam summi mbaxana wuyu ko wax ak moom ba noppi door a jógaat toog fam doon toog jën doomi Serigne Touba ju a gis mbaxanaam amul kenn xamu ci mbaxanaam sëñ Moussa Noël mboolem doomi Serigne Touba ak mboolem ñi nga xam ne magee nañ ko dara lu néew néew rek ci ci ci sëñ bi fu ko fu ngeen ñu dajee rek dana leeral xam ba ñëpp xam ne ñooñu ay kilifa lañ ci moom nun noo koy sant baax ngir sas na nun ñëpp kët kenn gisatu la nga ne ngir Cheikh Moustapha ni mu def gisatut li nga nee ngi Cheikh Moustapha ni nga def sëti sëñ Tuubaa yeeg doomi sëñ Tuubaa yi fii say yëpp Cheikh Moustapha sax na leen <laughs> bu Cheikh Amadou doon ba Cheikh Amadou bu Cheikh Amadou Bachir noonu ñëpp teg sëñ Tuubaa ni ñokket du suppi dara ne ko bu Cheikh Amadou Bachir woon ñokk sëñ Tuubaa ñokket mbàkk yow mooy wal bëtu suppi ko yow doo suppi ko dara sa yoonu maam yére yi yokk ko ko ndax nu ñëpp am doxee doxal nga taalib bi boo xam ne nongu la ci sunu taalib bi duñu def loo duñu gis ngi Cheikh Moustapha war nañu yoon waree te tegu na ci aw na sa war na war na ko ak mbokkam du mës ko benn sëriñ moom ko nangu ko sonn ci ay taalibeem kooku mu amu ci woon morom ñu bokk ci sëñ Tuubaa ñëpp rafet lañ aw doxinam rafet lu it dem yare ak njabootam ci ak taalibe ba nga xam ne ñu ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi dox sëñ Abdou Xaadir daana wax daan si Moussa Bassir am nag taalibe ci wét ak ci li ko loolu jafe na lool yàlla ma baaxee dañuy ñëw ci ay bisu Maam Fallu yàlla dafa mànd ak moom ci oto Mercedes bu ko Alaaji Njóoke ba joxoon Njóoke ba joxoon maanaam na ñëw ci buntu ko xëy blaat boobu Amadou Karim Gueye mooy ministre des forces armées moom la Mamady Sissokho yabal Mamady Sissokho mooy wut si moom ci réew mi boobu dafa président si si tukki yàlla dogal na bi sëñ Abdoulaye jëlee kàddu daa tënkoon ñu muy liggéeyee ci yoon wi xam le ne yoon wi moo fi nekk bokk yi ak Tuubaa ci boppam ak digganteem ak taalibe yi ak digganteem ak waa waa góor loolu nag mu seetlu ko ay cër wax ne lu aj ci biir Tuubaa dama ko dénk sëñ sax dama ko dénk sëñ Mudu Mudu Sa Jeen doo ci jumaa ji dama ko dénk sëñ Cheikh Fatma dama diggante waa góor sëñ Cheikh Bachir laa fi laa fi doxale maag taalibe yi nag doxalewuma fi kenn maa ngi ñoom rek ñi ma lim nag moom suñu daal mooy wax ne ñi ma lim nag noonu ci ñoom na xam ne neexuma ca dégluwuma la bu bu bu ci sa sa sa noppi naa xam ne mel naa la loolu tënk ay kàddoom moom la ñu doon yàlla baax ma it bañ jógee ci jotaay ba ànd maa ngi boo xam mi ci baraag boobu fi ñu fi ñu si ci këram. ñu daal na ko fi noo dégg wax ji ñu ko lépp rafet te jub waaye man nag sama cër de moom moo ci moo ci jaaxal mën na ko ah mën na ko sëñ jigéen la fi doxale woon dañu farlu daam daraame la fi doxale woon man nag ginnaaw foofu <laughs> foofu foofu daa tabbi nanga la ñaan nag taalibe bi yi nga xam ne kenn du ko si diggante ak ñoom taalibe bi moo ci moo ci kenn jiitu parce que naa yéen doxal lii nga ma sant waaye lee yëpp parce que naa yéene kenn du ma ci moom. man kese dëgg man ko ñaan bu mu ñaan seen daal yàlla nangu na ko te yàqu diggante ma waa góor gee ma ko ma ko demale woon daal taalibe bi moo ko ñor yéen ñi nga xam ne yéen sama rek ak waa dara même gépp maa ngi leen ñaan ñu suubu yoon woo yoon taalibe bi woo gii na ca noom lañ ko wàcc Serigne Moustapha ak nit yi diine yi nga xam ne ñoom la fi fekk kenn ku nekk ci ñoom dafa am nu la sëñ Moustapha jàppe woon yow itam nga am noo ko jàppe dafa bari lu mu dox lu rafetal diggante ñëpp ci ay bokk bari na diggante bu mu dox ba diggante ba rafet teg kenn xamul ni moo ko dox mësu ko tiitaroo bu la xasee jàpp ni tamit amul jàpp joxe lii bàyyi lii dalay jàpp biir man nitam lool mana a ko bokku lool di puso bi ñëw ci yoon wi ak ci bokku ne ko baye meral sëñ Basiiru ki da ko waxoon ne ko loolu ñi tabaxé ta dañ ko tuddee maaluj ab tëril loolu laa la digal yow Basiiru nga diko def ci yoon mo gis fo siinu fet fet rek ma sa ngi def demal demal dara <laughs> loolu sala ko diggu euh loolu kon loolu loolu loolu mu ne loolu muy liggéey suñu Basiiru lo tax ñi nit luy taxawal rek ak luy tax dara du ci mejj moo war a doon suñu liggéey. kan mooy Cheikh Mamadou Moustapha ci fonk diine ak fonk sharia waaye xaqiqa moom bu ñu la nee Cheikh Mamadou Moustapha sa xel du njëkk dem ci lu dul moom xaqiqa bi mooy bëgg Sëriñ Tuubaa gi ak taalibe gi ak fonk kilifa gi ak wamatu gi loolu moom da caa nekk ci kaw ñëpp. comme bii ñu nag muy Touba Kaolack bari na ci gone yoo xam ne yi seen fonk lislaam tax na fajar sax ci jumaa ji lañ koy jullee si waxuma laa nag yeneen yeneen waxtu yi lañ fiy fekk nga xam ne loolu lépp ab liggéeyam la ñun ñi nga xam ne nun la samp ngir ñu liggéeyal ko liggéeyam boobu ci lislaam mu def na noo xam ne taxoon na mënatu na miin keneen ku dul moom and ak ñun nak ci pass passam bu digeur bobu ak farlam gogu ak yitem ju koy jooju nga xamne lu ci waay xir xir da ci daw ci gannaam te du ko ci mëna jot waye mu dimbali wonu ban and ak mom ci lola dimbali taale bi yep yep yep ñi nga xamne ne ñoo aju ko Cheikh Mouhamadou bashir ak ñi nga xamne ni nangu nañ ak royu kayam ak nekkam royuteef dimbali leen ci yoon way ñu ko doxee كان جلد لنا أي مريض لنا فنك الإسلام لول فنك أكتر باللول دي دوختي الشريعة دي دوختي حقيقة بما دكي بابا ما توق بس نيوني ما سين مصطفى بشر نيني ويسيكو كولوبان جوك جارو ما ساكي سين شيخ بور وخكو بس كخمنا ني فارتا لما يدوي مدام يتوكي سالبي توتي mu ni ma agsil ci néeg bi ma agsi ci néeg bi mu woo sëñ Muntaqa sëñ Muntaqa ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ni ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Muntaqa ngeen fasante ko lëre mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabaarakallaahu <laughs> loolu maag sëñ Muntaqa ñu seq ko te sëñ Moustapha Bachir moo ko moo ubbi yoon wa moom bi mu dikkee dafa wéyal la sëñ Bassir waxoon ndax sëñ Bassir dañoo wax ne dafa wax waa waa fii Touba Gallas ñu ne leen dee leen jullee ji fële ca Mérina ajjuma nga xam ne kon mu ngi bàyyi xel li lislaam wax ne bu fekkee ne jumaa am na fi te jumaa jooju ëpp gudd waa dëkk bi jan la war a doon doon seen wëllëre nga xam ne Baye Mbaye Diène mi nekkoon fii nee na ma Cheikh saa su Cheikh Mouhamadou Bassir ñëwee fii benn fan wala ñaari fan nga gis fii Cheikh Cheikh Ibrahima Niass non la meloon nag waa Léona muy waa kër Khalifa Niass non la meloon nag waa Kaneen non la meloon nag mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi loolee nag ba Cheikh Mouhamadou Moustapha dikkee dontelee moom amul jot gi Cheikh Mouhamadou Bassir amoon ba di fi yàggee na mu fi daan yàggee waaye mi ngi jàpp loola. jàppaloo ko ñu fi bàyyi. dafa bëgg mbokk bëgg bëgg nitug boppam bëgg bëgg lu aju ci moom lépp moom kooku mbiram la mbokk moom ni ñu koy wal mu ma li mu bëgg ci mbokk moom neexu neexu dab waaw ku fonk mbokk la waaw ku fonk dëgg la it nag waaw waaw ku jub la it ci wàllu gépp nag di di santaane jub waxtu bu nekk fu mu toll maanaam maanaam bu dee ci wàllu wàllu wàllu liggéey noonu la ci meloon nag noonu la ci daana ma woon te moom mu jëkk level itam lii ma la wax bon nag jàngal nañu liggéey sama këritam moo ko taxawal bi ma nak nag ba noppi ci man ne ma nag léegi da nga sancal ma njote njote gee suñ suñ mutulaa sancal ma foofu man nga sama yaay nga foon sama yaay fara nekk waaye suñ mutulaa moo moo moo ma sancal foofu moo daje moo moo woo suñu useen jigéen ak ñoom gaje ga ñoom ñii sëriñ gaje ga ñoom ñu doon ñu jóge dara mu ne dem di ñëw ci lëkkëy bi c'était 1975 74 75 ah sañ sañ sañ sañcal ma ne ma ne ma nag wutul may itam soxna doomi sañ sama nijaay moo moo ko topp lépp amul lenn lu ma jot ne ma nag bu ma la soxlaa nga ñëw daal nawet jot mu lebal ma ne ma dama jox ma fukki bëri ngay xott ne ma dama la koo lebal at moom yàlla dogale tam ma ma ma ci mu nangu lool am naa ci téeméer bëri ak ñett taal sama wut samay saret sam ñu yóbbu ko daal ma fay mbay faal waaw loolu ci laay waxtu la martulaa dama koy wax dama su bàyyi moo ma dugal ci mbéy ndax man ñun duñu ay béykat waaye fi ne dama tam dama ci doxee di béykat rek aw bi bi munyati fasaka alal mawla al karim yasiru sëriñ Abdul Aziz Al Amin mii fi jóge sëñ Moustapha Bachir daf daan wax ni mooy sama secrétaire mooy sama chef protocole sunu nganu Touba ga yëpp dafa jël yëpp teg ko ci loxo Serigne Abdou ni ko seetal noo ko organisé. Serigne Moustapha Bachir mu ngi ko gërëm ndax lu nekk def na ko ci àdduna ba xamatul lu muy def kon nag yal na ko seen barke dal yal na ko barke mag ñi dal fa tabaarakallaahu matal na ak bokk yal na yàlla matal ak bokk ci moom. sëriñ Cheikh ñëw Touba gan si Cheikh Abdou Lahad ñett ñetti fan yooyu ngan nga géppit ci loxoom la ko Cheikh Abdou Lahad tegoon woo sëti sëriñ Touba yi nga xam ne ay rakkam lañ boole kook ñoom ni leen taxawul leen ma mu taxaw ko ba mat sëkk ci kero ca tàggatoo Cheikh Abdou Lahad dafa dafa wax ci làmmiñam su may tàmbali ay wax mooy sëriñ Moustapha Bassir ñi lu baax lu baax li nga wax ci moom moom laa lay gën a dëgëral ngir boo gisee muy sama loxol ndeyjoor di sama loxol càmmoñ yitteem la ak taxawaayam ak pastéefam ñi fi nekk yëpp ay ay rakkam lañu ñi tees di ay baayam waaye féete na ci wet boo xam ne eh, ak ak nangoom moo tax mu féete ba ba tax na kon bala maa tàmbali benn waxtaan ngërëm lu nga ko gërëm moom laa lay jëkk a seereel ngir yow ñu jëflantee gulaa man lenn loo xam ne lu ci moom la jaar li ci ci man sa dikk bi itam waxtaane jeeg ñëw géej bis beeg lépp ci moom mi la jaar noonu ñu ma féete ci sa wet gi ni la ma féete ci wet yëpp yal na ko yàlla féete fépp man waxtu ma fa sëñ Cheikh Massane yónni dafa may wax ni rek moom sëñ Moussa Bachir dafa may wax ni nañu tase Touba bu ko defee ma dem yendoo góor gi sëñ Abdoulahat waxtaan ak moom li ma sëñ Cheikh yónni tabaarakallaahu sëñ Moustapha Bachir wax ca la mu cay wax tabaarakallaahu ñëpp nekk ci jàmm sëñ Cheikh moo ma ne woon fu la mu sëñ Moustapha Bachir soxla bu ma tàggu waaye demal nga wuy ko mu ne ma ndax ku ku mën a dox lu rafet la. man de mën naa seede ni nit mosul dem këram seeti ko posé ko problème génn am déception man mën naa ko seede ma. ma mësaan dem itam poroxaan daf may wax ni noppalul ba guddi mu ni ma ndax ay bokk guddi la ñuy waxtaan bu ma demee ba nit ñëpp tëdd mu yónni Bachirou Babou waaw. mooy ñëw jël simba ma dem rek waxtaan ak moom ci guddi maa ngi fàttaliku ndeysaan guddi gi nu mujjee waxtaan maak moom ak sëñ den Mbàkke ñoo ko bokk fa lañu toog di waxtaan ba trois heures du matin wallahi ci ci lu baax waaw moom sëñ Moustapha Bachir xamul lu dul lu baax xam nga waxtaanu guddi boo xam ni yow ki nga koy waxtaanal daanaka yéen ñaar rek yéen a koy dégg la cay génn ak la nga xam ne lii jële na ko ci wéy juram man toujours dama koy cité dama koy cité ah dañuy waxtaan moom sëñ Moussa Bachir mu ni ma sa bàyyi sëñ day nee na am na koo xam ne dee su ko dénk ay bóot mu ki nga xam ni bu xiifee ñaxtu bu reggee bajantu nee na kenn du ko dénk ay boot waaw ndax mbóot yoo ko dénk bu xiifee gis ku ko leel la ko waxoon mu wax ko ko wallahi lii dama koy nettali ci kóosëre yi may def man leen ci moom laa ko jële mu jële ko ci way juróom sëñ Bachir noonu mu ko doon defee Tiwaawoon noonu la ko defee Njaasaan noonu la ko defee Laayeen noonu la ko daan defee Tayba Ñaseen noonu la ko defee itam Medina Baye bëggoon na réew mi bàyyi réew mi xel ba képp koo xam ne yaa ngi senegal am fi benn rôle buñ la jox nga di ko joué sëñ Moustapha bàyyi woon na la xel. Senghor daan na waxtaan ak moom waxtaan yu xóot yoo xam ne kenn du ko fekkee. laaj ko lii ak lii lan nga si xalaat te loo xam ne du affaire marabu sax affaire réew mi la. dinañ wax dinañ waxtaan ci wolof. wax naa wax naa leen ko. moom état mosu ko kii ci lenn du am d'affaires yi du nit diine yi du kër diine yenn ñëpp la amaloon jàmm. te ku ne am nga wet goo ko wekk. politiquement mos na neutre ci leen ndax toujours day engagé ci dara. ndax dëgg la lay woon dëgg lay ànd ak yow dëgg la lay woon dëgg la lay jaarloo. Serigne Moustapha moom.

ñu toog ma ñëw jox ko sama àddiya rakk taalibe xarit ma ko joxee la ma ko jox ji may sa seeg mi ma àndaloon yàlla ko yàlla yërëm moom itam ñëw ne ma kat am na benn kër bu ñu war a yokk ci boo paree visite yi ndax juróomi kër lañ prévoir bu ñu fi jógee dem si xalif ba tekki ñaari kër am na yeneen ñaari kër yoo xam sëñ bi dégg na ko sëñ Moustapha dégg na ko bi ñuy jógee di dem la ma ko ni leen mu ne ma kaay yóbbu lii ndax lii prévoir ko woon dama ko joxoon moom la ma jox ne ma comme alaji may sene la ñu ngi lay xaar kër gi ak kër gi te ñëpp surtout sëñ maam Touba la maam sëñ Touba la lii nga ma indi loon yóbbu ko nga jox leen ko man man danaa xaar man Senghor nee na Senghor nee na te loolu man muy wax na ma ko Serigne Moustapha mos ko wax lu tebbi ko président Senghor ci boppam wax na benn bés mu ne ma li ma neex ci sëñ Moustapha Bassirou boo ko laajee la mu xelaat la lay wax même bu la neexul. kàddu gam lay wax yàgg yàgg mooy doon liy am waaw yàlla dafa defoon dafa defoon ak dëggu ci làmmiñam ba lu mu wax rek loola loolu moo ne ci xolam. président Senghor wax na ma ko man nii Popenguine parce que dafa recevoir sëñ Moussa Bassirou cinq heures et demi six heures ma yegg si mu woo ma ñëw fekk Popenguine ma dajeeg sëñ Moustapha nuyu ko ziare ko ñu toog salon bi ñu woo ma keroog la ma wax ne ma sëñ fonk naa ko ndax na jaaxle yoo xam ne su ma ci yeggee ko wooyee moom dana wax la nga xam ne moom la ma citoyen war a wax. lépp loo xam ne lii Senghor war na ko jël ci décision boo xam ne Sénégal la concerné dana woo Serigne lii kat dama bëgg a jël ci jub ak lu koo xam ne da ngay ñëw rek taxañ ko yóbbu da fexe li ngay dox. boo fekkee yónni ñu benn ca dara nga fexe mu leer ko nañ tey dana la yaatal ndax day discuter day casse droit day day xëcc ay dafa dafa dafay dafay yan responsabilité su ko defee bu demee ba xam ne yow lii ngay def intérêt yoon bi la amul foo foo yem foo yem rek yaa fa yem la sa bopp. secret déjà kenn du ko révélé yoo xam ne yi Serigne Moustapha moo moo ne bu mu am mukk Senghor bàyyi ko yoo xam ne bu ko defoon. dana indi ci lu bari waaye lu ko ci Serigne Moustapha mos ne bàyyil mu bàyyi. président Diouf ñëw Serigne Moustapha jàppale président Diouf pour l' intérêt du Sénégal. Serigne Moustapha moom lim ñeemoon wax ab bi amul kenn ko ñeem wax ndax doonu xarit duñu dafa gëmoon Serigne Moustapha. loo doon doon homme d' état toujours Serigne Moustapha mi ngi sàmm diine. waaw sa xarit sa moom sa sa sa waaw Moussa Bassiré moom kooku fii fii. mbaaraka la. defal na ma lu nekk. wallaay wallaay. sëñ Moustapha Bassirou. booba temps nee na dégg na li may wax ci mouridisme xam na ni it murid la. ma di ko seeti ma daan tubaab bu ma ko fekkee nii ko. su ma ko fekkee Jurbel dem fa su ma ko fekkee Poroxaan dem fa réew mi yépp xam ko euh, mu jàppale ma ba mu ma jàppale ma jàppale ci lu wér ñépp xam ko taalibe yeeg waa këram ak mu wax leen ni jàppale leen Ablaay ñoom ñoom ñu jàppale ma kon loolu li ma may doole ci bi ma nekkee président ci la bokk. dimbali na ma ci lu bëree bari bari ndax daf ma daan xelal. saa yu ma ñëwaan seet si ko daan xelal lool surtout euh, bi may nekk sax CEDEAO. Euh, foofu laa gën a yàggee. def naa fa fukki at juróom benn. Euh, euh, yore naa fi CEDEAO Lomé euh, daan na ma xelal lool lool wax dëgg dind dind na ci man ay jikko yu bëree bëri ndax xam nga kii yomboon naa yenn yi di yëngatu boo boo boo mu waxee lenn loo xam ne mën naa kii dama daan waaye dama daan wax naan dama daan digal naan ma da ngay da ngay am da ngay am xel di xelli bu mu ni miri nak ben yet molen leen moo di sàmm waaye ñaar fukki nit ñaar fukki yar la waaw mu ni ku nekk yaram la kon nag surtout bu ngeen xamee ni bokk leen sax mel ni réew ñii nga tu Togo ñii nga ni Nigeria ñii nga Burkina Faso ku ne da ngay seet ku ci ne ni ngay ni ngay doxee moom boole naree boole benn buum du yàgg du yàgg yu mel noonu la ma daan wax ku ne mbay ci Sénégal dañuy wax Amadou Batoor waaye day sama njàmbaar googee nit ñi gis ci man ci mbay ba ni ma ko nawee Serigne Moustapha moo ko dugal ci man lépp lu ma daa def rek damay xool ci Serigne Moustapha lu mu sumb nim ci saxe ba am résultat ma ne may kat du ma sumb dara te di rocc ndax rek dafa metti euh, Serigne Moustapha mbay moom kenn mënu ko tëkkale kenn ndax euh, euh, dama leen di wax ci affaire mbay mbayu noor la njëkk la ma njëkk a seetsee même batoor ki yow mbayum noor eh, maali ci dugal sax ndax ci moom laa ci ndigalam laa commencé mbay chef d'état yi itam euh, saa yi mu euh, boole woon naa ko ci ñoo xam ni euh, wax dëgg soxla woon nañ koy gis waaye moom mosula nu ngu génn mosula mm-hmm. nu ngoo dem dem fenn waaye wax dëgg day daan nañ ay ñaan lu nekk daan ma ko mm. surtout ki ki nekkoon xamal nga ko ci liggéey ni mu ci meloon acteur de développement la mais médiateur social la aussi Serigne Moustapha waxuma man liggéey gi waxuma sell gi mu sell waxuma soppalu gi mu soppalu waxuma jox gi mu jox boppam soxna Jaara Buso waaye moom Sëñ Tuubaa képp moo ko ñor lu mu def la nekk lu mu rëy rëy du yëg ni def na ko sax ndax lu tax lu ko ñor moom Sëriñ Tuubaa képp moo ko ñor man dama koy sentir lu bëri. daan na ma wax ni kër gi euh, nit ñi bari nañ fi waaye doomu ki taalibe fi ne lu ma wax rek dañ naan waaw. waaw li ma bëggoon moo di ngay ngay ñëw toog ñuy ñuy diisante yow yow yow yow ma bu ma waxee loo xam ne lu dul noonu da nga ma wax ne sëriñ bi gisee wu ma ko noonu. waaw loolu la de sorte que af ci yëpp xam nga liggéeyu liggéeyu kër maam jaara geeg liggéeyu daara daara jeeg lépp lu ci ne maag moom dañ ci daan dañ ci daan waxtaan lool lool lool ndax dafa am benn affectation bu ma amoon euh, bi mu ñëwee mu laaj mën na ma dégg naa dañ la affecté man ko mu na ndax foofu baax na waaw xam nga waxu wax ko dafa ndax foofu baax man ko ah foofu de baax na am na daraja waaye dama daan am si si alal waaw dafa soppiku waa ndax ndey de poste yi di nga am daraja waaye danga daan am post bi gën a tuuti moom mooy ëpp mer dama te ngaa sant yàlla te sant yàlla te ngaa sant mu ne ma te ngaa xool baykat yi nga xam ni nañ liggéey juróomi weer te bu ñu ko jaayee duma téeméeri junni ñu dund si at yow nag ñetti weer jot nga am ay million da war a sant yàlla ah man ko man de mbàkke maa ngi jégulu sax waaw waaye man de yor sa bunt bi ku ñëw mën ne di nuyu tam sa ngërëm moom na waaw tàlla ma ñaanal waaw bi ma sëñ Bas ma daal nañ delluwaat ndax loolu doyul bañ delluwaatee mu wax ko ko ne daal moom dafa bëgg ñëw di tuub waaw bëggoon yasaa njëbb la mun naa ban na ko sëkk de ban na ko sëkk booba damaa yes laa sama njëbbal loolu rek ma ko wax. man dama ko natt natt natt ba xam ni kii dara ñoru ko dul sëñ Touba moo tax su ma daan ñëw si moom sëñ bi rek laa daan xeeñtu te fu ma ko gisee rek damay li may wax li ma ko daan wax dama ko wax da ngay dalal xelu taalibe yi seral seen xol. ku doon toppatoo taalibeem la aussi. parce que procès yi ma daan dénk dossiers yi ma daan dënk toujours ay mbiru ay taalibeem la wala taalibe jàmbur mu woo la ma dama diw de. dama bëggoon nga taxaw ko du suma taalibe taalibe jëw la dëkk waaye yaakaar gi mu am si man ndax xam ne ne man am naa sañ señ si yow moo tax mu seet si ma pour nga régler ay problème am dama bëgg nga toppatoo ko gën a gaawee Sëriñ Moussa Bachir dafa wax ne man de ma sañoon sama taalibe dina am ngërëmal waajur sama taalibe euh, dina fonk diine sama taalibe ay kilifaam dinañ ko wóolu sama taalibe tamit dina ràññeeku cig taalibe te ak taalibe balaa nga koy doon dangay doon jullit xàqan soog a doon ab taalibe dafa am loo xamee ni saa yu ne dafa daan feeñal waaw fu ñu mës a nekk di jàng moo xam ñuy jàng xasay wax alxuraan bu waxtu julli jotee naan bàyyi la ngeen def te julli si noonu suñ digganteeg moom xaw naa yàgg ndax nekk na mag sëñ Basiru juróom-ñeenti at doon nekk moom ñeent fukki at ak benn yoo xam ne fu ma ne moom ma fa yóbbu dongay tarbiya itam ni mu leen daan def bu nooree mu di leen mu di leen mu di yóbbu leen fi barab dajale leen fa ndax bañu taxawal bu naawete mu di leen liggéeyloo tayit liggéey bi mu leen liggéeyloo itam da leen di taxaw di leen seet mu sëñ bi moom du def du def lu mu xamul lu ko waay di defal dana ko xam ndax na nga koy defee moo la koy wax tey tam boo ca defee loo ca war def mu mu moo koy dindi boppam kenn du ko defal loo xam ne nii bokkut ak na mu ko bëggee bu dee tabax ak bu dee kër gu muy natt ak bu dee dëkk ak lu mu mën a doon day wax nii laa ko bëggee te noona dana aw yoon gu kenn ku koy mën a dindi mën faa def lu ko gën du am. boo xam ne kii doomu adama la mbaa nga si sëñ Moustapha Bassirou xam nga ko ci moom as la ab jullit la ab taalibe la ku bëgg boppam la ku bëgg bokkam la ku bëgg taalibeem la ku bëgg nitam la. fii di gis naa fi mu taxaw fi ay taalibe taxaw boo xam ne bii bu ci yemoon nit doy na ab taalibe waxuma la ak àllaaxira ndax taalibe mun mu soxla nga taal sa oto yebal sa doom baa nga yebal sa jëwiñ la ci war nga def ko bu kooka bu ko bi ca tëj waree nga wax bañ tijji ko la ci war nga def ko ci loolu jëmmi si mu nat xelam ak xalaatam foo ko nat seet na weesu ndax dangay ngay dem da ngay dem ba defe ni ba kattan ba kattan xel da ngay defe kii li muy wax yàllaa ko wax loo waa muy def yàllaa ko def nga dema dema dem ba defe ne képp ku mbokk mbokkal Serigne Touba xam na Serigne Touba loo xamul mbaa man ci loo xamul mbaa mu def ci loo dibul te dara muy ko nag lu mu ak taalibe bi lim am lépp ci ci Serigne Touba ko ci la ko delloo lépp lu ko Serigne Touba defar rek lu mu loo xam ne nii technicien bi la Serigne Abdou Lahat waxoon ne ah, yomal xëyaam day bàyyi naa la ak sama am Serigne Touba nun tëri bii sax ñu ko war a ko wax ndax képp koo xam ne kii su sukk nga jébbu sëñ Moustapha bu ko sa yitte matee mbaa sa tëri bi ko defal na loo xam ne lii kenn defalu loolu nag hmm, dañ dañ koy dañ koy sant yàlla ndax lii sant gi moo moom ànd ku mat ànd ak ku mat ku mat àndal boo boo boo boo manqué mu matal la boo matee mu dolli la kooku moom yàlla defal na ko si ñu ànd ak noonu la àndee ñoom kenn ku ne lu war ci moom defal na la mbokk bokk fa mbokk yi la tàmbalee mbaagul saalum kajoor bawal njaamur foo dem la waaja ne woon kajoor ba njaamur foo dem ñu ne sëñ Basiiru nee koo fi dem ci teel suñu soxla wax li ma suñu soxla defal moom jàngalekat la woon ku ko ku ko topp de ah, waxuma ne doo juum de waaye juum la yomb jëwriñu eh, maam jaara ji nga xam ne da ko doon ci sëñ Basiru te nekk ko ak nam ko defeek ni mu ko xalaateek ni mu ko organisé loolu loolu ku ne xam na ne moo taxit noonu mu ko xalaatee te mu suñu borom la manoon naa ñàkk ndax am na yu bare bari yu mu def yoo xam ne nii kenn séentuwu ko woon bu ko defutoon kenn du ko xalaat waaye ba mu ko defee xam nañ ne lii ku yàlla may rek mën a xalaat lii ndax lu mënutoon a ñàkk la waaye sëñ Moustapha dafa neex a àndal jàmbaar la joo xam ne du tit du du du du jaxase ñan te itam loo ko wax dana teey ba lijjanti ko ba mu jeex ku neex andal la jambar gi ci mom nak kene amu ko ñu ma ñu jox ko Allah bi yëpp jox ko plan bi mu wama na plan ba ngi ni tol yëpp jox nañ ma ko luñ luñ bëgg ren rek jox nañ ma ko nang ko les nak dana fi yebal sa bay asan bay mu ñew ngeen les ko yëkkati der go xamne ne neexut a wax ci mbooloo waaye der la goo xam ne fees dell ki bal jox ma ak fetuk ñaar ngémmiñ gu gu mu du mbakki mbay mee ko moom mu jox ma ko ak ñaari paqueti bal ne ma tool nga les ko ba mu mel ni plan bi nii ni mel nii nga ko ci rek loolu kay sëñ bi sawar naa ci li nga xam ne moom la dong yi daan bay ci daara ji ñaq yooyu moom la tabaxi jumaa ji ñëpp dañoo xëy gis ko mu tàmbali ko muy taxaw ak a dox muy taxaw ak a dox ba mel nii tey kon nag Porokhane loolu la waaw loolu la loolu daara ji nag waxi noppi moom lislaam gépp la ko defal réew mi yëpp la ko defal eh, xalaat bi xalaat bu rëy rëy rëy moo xam ne nii buy continuer ba faw la te moom itam yàllaa ko ci dimbale mënoon naa ñàkk waaye bëgg gi mu bëgg liggéeyal yàlla moo tax bi mu nekkee soxna jaara yi fas yéene liggéeyal soxna jaara ngir yàlla liggéey bu nga xam ne muy dugg ci lim gënoon a bëgg mooy alxuraan liggéey bi mu ci liggéey liggéeyal ko ci suñ soxna su tedd si nga xam ne mooy sëñ bi rek ndax mooy buntu sëñ bi ndax mooy soxna si nga xam ne am na loo xam kenn mësu koo am ci jigéen bis bee mu am ak dëkk bee mu am ñi liggéeyal yàlla ci lislaam bari na waaye kenn mësu ci am kon ni ni sëñ bi ni may sëñ bi beroo rek ni la soxna si beroo moom mii nag yàlla may na ko ci ndam. Porokhane ni mu ko dundale mm. nga xam ne. Cheikh Abdoul Bachir bu mu ko dekkalee di ko taxawu waaye bàyyi ko fa nag mu développé ko développement boo xam ne fu mu àgg tey gannaaw yàlla moom la ak xalaatam doy na ñu tudd ca kër maam jaara ga kon loola liggéey bu rëy rëy la boo xam ne eh, dañ koy fàttaliku te di ko ca bari lu ñu mën a roy ci moom eh, moo tax eh, damay wax ne poroxaan benn xasida gu ma dabb daaxee woon ci sëñ ci ci soxna jaara mm-hmm. da ciy wax ci biir ne boo siyaaree dem poroxaan ba noppi na nga na nga siyaare nag soxna si ñaan ca waaye na nga siyaare waa kër Sëñ Tuubaa fa nekk muy waa kër Sëñ Bachirou ndax ñoom ko dañ ñoo xam ne dañoo dañoo te lim gën a yar waa kër mooy mooy discipline waa kër Sëñ Bachirou dañoo am yar dañoo dañoo toppante toppante goo xam ñëpp lañ ko seedeel mm-hmm. waaw moom xam ak te ñun ca lañ bokk mm-hmm. du ne bokkuma kër Sëñ ñëpp kër Sëñ Bachirou <laughs> ndax ñàkk bokk kër Sëñ Bachirou wóorut mm-hmm. waaw wóorut kon léegi seenu toppante ak seenu tarbiya ak seenu taalibe Sëñ Moussa daf ko gën a incarné moo tax ma ne boo boo siyaare soxna si ba noppi ba ñaan fa la nga fay ñaan ba def fa la nga fay def na nga ziare waa kër Sëriñ Tuubaa fa nekk muy waa kër Sëriñ Bachirou ndax dañoo am bari fuñ jaar te ka leen fa jaaree di ko makka di suñu sëriñ bi di Cheikh Amadou Bachir moo tax ma ne léegi sallim ala boo ziare ba noppi sallim ala ahli baytin laazamu adaban tawaaduan xudaman dil barra sujaana qad duribu min xabirin aalimin wariin bachirina cheikhina rabbaahu mawlaana raqaahu safaahu bahrun la nadira lahu fa arraxa baadahu mawsuua haadina fa tabaarakallaa foofa moom wax dëgg yàlla moom la mu fa def moom lu ñëpp gis la waaw def na jëf ju mat sëkk joo xam ne xam na ne maamam sant na ko gërëm na ndax defal na ko fa loo xam ne ba adduna tukki kenn di su ko fàtte jëf ju mu fa def ci lu baax ak ndax dama jëlale njaboot defat gam dafa dëkk ba rek ak barabam na mu ko toppatoo waaye dama jëlale daara jëm fa def rek na muy doxe ci ay jigéen ñoo xam ne ñooy mokk alxuraan tere alxuraan ba di ko jàngalewaat kooku moom xam nga ne moom fees mën a yem ci xalaatam bu rafet ak pëstéefam mu nekkoon dana fi dagg kër gu maam jaar gu mag mooy pàkk bi ni tey nga xam ne kër gu yaatu la lan la fi programme woon mu dana fi def lu mat ñaari junni nit ak yu topp ak ñi di taxaw kon xam ngeen ne lool kon pàkk bu yaatu lay doon te effectivement pàkk bi noonu la toll mu wax ne li tax ma dagg fi kër goo xam ne kër maam jaara la nit ku nekk bu amee dëkk itamit war na fa am kër boppam goo xam ne kuy ganam fa ngay nekk kuy nitam fa ngay nekk euh, euh, itamit bu fi nekkoon tamit fa ngay foofu lay nekk. lii dafa doon loo xam ne lii lenn la ci ay jëfam ci ci ci Porokhane bu ko defee la nga xam ne it moom moo ko jiitu woon mooy kër maam jaara gi bëgg lu boole bokk. ñu bokkee xalaat bokki pas-pas bokki yéene di yëkkatindoo di dalandoo loolu moo taxoon mu sos kër maam jaara gi ñu ma soxna jaara bu nekkoon poroxaan nekk ci këram yi tamit dina amul njaboot te njaboot gi mën naa am du doon njabootu boppam njaboot ga muy doon mooy njabootu lislaam gi nga xam ne mooy ñi ñu ko tuddee mu ne soxna jaara su nekkoon ci kaw suuf ku ko tudd doom ko ko jox ndax li tax ñu koy doom mooy bëgg bëgg ci jikkoom yooyu bëgg ci barkeem bi tax ku ne di ko tuddee doom mu ne kon nag bu ma ko fa defalee kër ba noppi dinaa jël mboolem koo xam ne waroon na koo yor ci jamono indi ko ci biir te kenn gënu ci ay turandoom yi nga xam ne dañ ko ko duppee mu daal di xalaat ne bu ñu fi nekkee tamit kat tam nekkoon fi ak ñoom li muy def mooy da leen di jàngal li mu leen jàngal leen diine moo tax mu ne da koy def daara juróomi téeméeri turandoo soxna jaare yoo xam ne jóge nañ fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw fii ci daara ji mu def ko lan muy daara moderne dama leen wax ne leen bu ñu nee daara moderne def fii la njëkkee wala kenn jiituwu ci sëñ Moustapha Bassirou ndax daara ji boo gisee ni mu ko jàngate ak ni mu ko tërale rek defe naa ne kuy waxati daara moderne wala ngay wax jàng mu nga xam ne mu tege ci yoon la alxuraan na ca lépp na ca te mu dëppook jamono boobu dangay xool poroxaan yi sa xel di dem sëñ Moustapha ñun jigéen ñi war nañ ko ci sant bu baax a baax ndax daf ñoo may jom daf ñoo xamal ne ci ngeen bokk yéen a jiitu. adduna bi yëpp xam nañu taxawaayu poroxaan. li nga def ci poroxaan delloo njukkal sa waajur ju tedd ji di Maam Jaara ñu gis ko ci jaara yi nga xamante ni moom lañu ñu jagleel turandoo yi xam li muy def ci njaboot gi ak ci réew mi gis sa taxawaay ci wàllu mbéy ak lépp luy suuxat koom-koomu réew mi tey it nañ ne gis nañu ne barab bii nga xam ne mooy barabu soxna si barab la boo xam ne ñaan yàlla defal ko nee na moo taxoon mu wax président ne ko li nga xam ne moom ngay ñaan fa barab ba yàlla na la ko yàlla defal kon loolu mel na ne am na yow itam na nga ñaanal sa bopp ñaanal réew mi nga xam ne yaa ko yor tey ndax loo ci ñaan xeyna yalla man mën la koo defal yar bi ko bàyyam yor mo seigne Basiiru ci jamu yalla ak liggey da ko sanjal ci sa su ne mu top àll bi di gor euh difa yar ay talibé ñu ñu mëna a jëriñoo seen dundu ci àdduna ak ci alaaxira madhi muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa nimasatu busuri kitaabullahi wa sunnatu llati biha ahtami amana busuri barab bi day sëriñ bi mi ngi ko sanc ci 1981 ah bi koy sanc nag fi xawoon na doy lool mën naa ne ab sën la woon sën bu mag boo xam ne daanaka bâtiment bi mën naa ne xawoon naa tolloo guddaay bi ci kaw waa dëkk bi tuddee woon ko sëgi mbaam bi yàlla dogalee mu defar ko ba mënees fee dëkke mu daal di jënd fii nga xam ne mooy quartier bi tey yàlla dogal bi ñu ko lotisee mu daal di fab ay taalibeem séddale leen ko daal wax na quartier bi ñu ko tuddee Touba Pout yàlla dogal sëñ Moussa mi fi nekk tey moo àndoon ak dongo yi moom moo doon taxaw dongo yi naka jekk fu dongo yi jëm mooy ànd ak ñoom moo leen doon taxaw fii Cheikh Awa Balla mi nga xam ne moom la fi sëñ bi déel tey ba mu nekk fi ba tey jii وسنة التي يا أهتمي أما أنا ومزور خصوصي بوكي بوغن دمي بوت لي موي تول باغا خامتيني بي شيخ مصطفى ابن شيخ محمود البشير مو فك فون دا واخ سيغي مبام مو ترانسفورم كو ليترالمون باغ دي فا باي لو خامتيني بي ميم كونديسيون يي باي سي اوروب ak ci états unis diko jaay ci biir réew mi ak diko jaay ci bitim réew bokki jullit yëpp ak waa Sénégal di ci jëriñoo kon lii c'est un bon exemple de développement un bon exemple ci agriculture boo xamante ne bii ñëpp war nañu ko rey d'ailleurs loolu sax ma waral état bu Sénégal jël centram ba nekk njool duppee ko Cheikh Maoul Moussa Bachirou ngir ab liggéeyam ci wàllu mbay ak ay compétence am ak résultats yi nga xam ne am na ko ci wàllu mbay muy baykat boo xamante ne bii réew mi ñëpp xam nañu ko te ñëpp na jël exemple ci moom ngir mën a soqali Sénégal. 1987 la ma indi Pout euh, bu fekk boobu maa ngi woon naaweel ci sama mag di sama sëriñ sëriñ Moussa mu indi ma fii Pout. Euh, liggéey bi mu ñu bàyyee yàlla defee mu yéeg 2007 euh, ci dénkaane woon ne dafa bëgg waxtu wu fi jógee itam liggéey bi continuer di dimbale njaboot gi di dimbale. doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi doon liggéey ndax yàlla def na fii naka jekk lu ma junni nit ci waxtu session dañ fi nekk di liggéey euh, ñeneen ñi nga xam ne nekkoon nañ ci daara ji doon doo ngay tarbiya wàccoon itam di ay emploi ñu bari day ñu fi di baana baana di liggéey mu jur économie bu mag ci senegal mburu yu lujum itam bari na marché caaro yi marché yooyu dem ci Sénégal fekk fa yoo xam ne dafa jóge woon ci toolam. yàlla suturaal nañu ba loolu mënu bàyyee woon ngir bëgg. nit ñi di fi jariñu loola mi ngi wéy ba tey li fi nekk ci ñi fi liggéey war na mat 600 personnes muy juróom benn téeméer war na ko mat ci usine ba ñuy traité haricot yi au moins ñetti téeméer ba ñeenti téeméer dana fa nekk 1200 daal presque danañu fi nekk di di di di liggéey ci ci ci wàllu ñi di récolter ñi di employé ñi di def triage centre communal yooyu. sëñ bi ay contrat la daam ak ay tubaab di liggéey ñom loola itam ba tay dagut ci loola euh, mu ay italien la ñuy liggéeyandool fi mu ñoom la nekkandol ci liggéey bi. ah Moustapha Bachouri Baké, euh, j'ai fait le grand salut et j'ai dit que la ferme c'est très belle. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes. Euh, il marche bien. Ça marche bien. C'est ça que nous devons améliorer encore. Pour améliorer, c'est ça que nous devons faire encore. J'ai beaucoup d'investissements ensemble. loolu kon melni ni lim ñu bayé won bëggoon mu wéy ñi ngi am ba tay ndax daf da wax euh dama bëgg liggéey bi wéy ba euh, nit ñi di fi jëlé seen dépense ku ñëw liggéey fi bu ngone nga am lo mëna yobbu sa kër bu ëllëgee loola man na ma fekk fa ma tëdd loolu daf ko da wax. sama yitté yëpp. mo di ñu xam la leen tax a di ñu xam la leen tax am la leen tax am la leen euh, kon nak kon nak defena ni ñi fi nekk. defena na ñi fi nekk. sama bénéfice moo di rek. sama bénéfice moo di rek. ñu liggéey lu leen mën a dundal. ñu liggéey lu leen man a dundal. ndax suñu ko liggéeyul tam ndax suñu ko liggéey itam. fu mu mën a jëlee lu ñuy dundee. fu ma a jëlee lu ñuy dundee. danaa ko def li nga xam ne moom moom laa soxla ci ñoom. li nga xam ne moom laa soxla ci ñoom. ma man ko am. ma man koo am. loolu moo di yor leen fi. loolu moo di yor leen fi. yar leen fi. yar leen fi. ci diine. ci diine. jàngal leen ab liggéey. jàngal leen ab liggéey. loolu doy ma sëkk. ci ak yéeneem ju amoon ci ci ci ci ci liggéey loolu moo ñu ci dimbale ba nekk fi di taxawani ba negeen loolu nag moo tax ñi ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant Serigne Touba di ko sant moom di ko ñaanal suñu borom fayal ñu ko ab liggéeyam ak taxawaayam ci ci ci Sénégal gépp rawatina fii ci Pout fii ci Pout mën naa ne ñëpp ci jariñ Cheikh Moustapha Bassirou Mbacké jërëjëf Cheikh Moustapha Bassirou Mbacké jërëjëf Cheikh Moustapha Bassirou Mbacké jërëjëf nun wa Pout day nun ñu ngi sant yalla bu wéré a ak dëkk yi ñu wër. village yi nga xam ne ñoo wër Pout. ñoom ñëpp ci tollu seigne sëñ Moustapha Bachirou la ñuy liggéey Moustapha Bachirou joggé Pout. ñëw nak Ross Béthio exploitation rizicole kenn ku ne xam na ne état du Sénégal ñi ngi wax ci autosuffisance alimentaire kon tay Serigne Moustapha jiitu na état ci autosuffisance alimentaire ndax bo démé Ross Béthio tay ay hectares yu bari lool la fa sëñ Moustapha exploité ngir mbayum ca fi ne bokk na ci fi mu mujj sos mi ngi ko sos tam tàmbali mi tàmbalee ci 1978 booba Jibril Sène mooy ministère développement rural moo ko joxoon ñeent fukki hectares ci fee ñuy wax Ngaleen ci wetu Ndar dama eh, ko joxee nag 79 jëm 80 mu jox ma këyit ba mu ko ba mu ko bind ma wax bind ni naa ñëw sayet gi wan leen këyit bi ñu war ma fiñ ko jox ci ngaleen maa ngi fekk secrétaire général sayet koy wax Amadou Abbas Ba mu jën doon ab ministère moom laa fekk mu secrétaire général sayet ma ko wax walee këyit bi fekk Jibril Seen moom ab liggéeyam jeex na ba ñu andi fi sëñ Lamine Jóob mu wutu ko ci si Lamine nag laa laa ñëwee sayt mu ngi toppatoo lii yi eh, Abba ne ma lii nag ginnaaw ministère bi ministère moo ko defoon te ministère bi dafa yees da ngay dellu ci ministère ba mu yeesal kayit yi ma tamit fi mu saa ci Maro ko ma ne ma ko naa ko laf ba dikk bu mu ñëwee soixante-dix-neuf quatre-vingt vingt un trois dañ Lamine Diop jeexal na gibisan seen na Omar Khasum jah, Nek pdc wu SAED bëgg wala wala yi gëna mëna bay bu baax bëgg jit fuñu ko mëna royé mu tamuy muy wëlëree sëñ muntaha Basiru rek sëñ Mustafa Basiru mu ne muntaha dama bëggoon nga ñëw walo ngir ma jàppale ngir nga liggéey nga wala wala mëna roy ci yow ngir personnel bu juuf dafa bëgg mbayam ci mi gëna ci réew mi sëñ bi sax daal ko bële Omar Xaasim Dia. sëñ bi sax gëmee ko moom. ñaa ko joxe fii ci sayet lu ma téeméeri hectare ci delta defaral ko ko sëñ bi taxaw mu indi dongo yi 84. fii ñu taxaw tey fenn la ci tool yi nga xam ne moom la sëñ Moustapha daan liggéey fii ci wàllo ndox tool yi mu fi am dafa nekk ay barab yu taqalikoo secteur bi nga xam ne moo ci gën a jege Ross moy biñu tuddu tudd Garanding am na feneen wax Delta nek ci penku mu ndóom fii taxaw tay moy fiñu wax Touba Dios bokk ci tol yi mag yi nga xam ni bokk na ci serigne Moustapha njëkk a taxawal fii ci walo ñu jox ko secteur 44 buñ ko joxe secteur 44 nga xam dañ ko bayyi won dañ ko abandonné won hmm. parce que ña fa nekkoon dañ ko abandonné né né xuta liggé hmm. ah mom mu ñew ak euh, pastefam hmm. liggéey ko liggéey boo xamee ne bi bu yet normal ba nga xamee ne ñi nga xamee ne bi sax dañ fi dëkk yaakaaroon ne mënuñu liggéey mënuñu liggéey bi gis na nañu yéemu ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi daan na ko liggéey ci loolu nag la ko sawet di gisee di ko yokk di ko yokk ay hectares di ko yokk ay hectares àgg na ci cent trente cinq hectares soixante waaw 135 hectares 60 ci ci kaas yi mbundum bi moom la suñu saa bàyyi ci suuf kaas ah, yi bi nga xam ne mooy kaas bi nekk zone Ross Béthio bi am na fi 70 hectares yoo xam ne moom it daan ko béy nga xam ne boo ko seetee léegi dafay nekk 206 hectares virgule cinquante ci biir loolu itam bu changé na li nga xamee ne bii noonu la nit ñi doon jàppe liggéey bi parce que liggéey bi mu doon liggéey wane na suuf am na njariñ

fekk ne moom wut na tracteur ba nga ciy jàng ba mokkal soo aajoo oto wut na fi oto ba nga xam ne da ngay jàng ba mokkal nekk ci daara ji soo aajowoo leneen loo moissonneuse batteuse yi nga xam ne moom nga gis tey am na ñoo xamee ni ci biir daara ji fi la ñu ko jàngee ba mu mokk ba nekk ay professionnel madhi muhammadan binasmin sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké dafa daldi dundalaat mbooleem dëkk boo xamante ne bii waajuram sëriñ Bassirou sancoon na fa wala mu amoon fay tool maris na ca lim dëkk bi di Touba al Mahrousa ak njaareem ñu gën ko xam ci Jurbel fi sëñ bi daal nekk ci kër bu mag gii li mu fi daal def it moom la fi daal def toog fii di dimbali bindee fi di xam seeni soxla di leen ca dimbali lépp lu lëj mu lijjanti ko fu daay tàkke mu fay ko fu ay amit buñ ko waxee loolu bu ko yëgee dana solo mu dox ko ba mu sedd guy kenn du yëg nekkal fi bindéef yëpp amit personnalité boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci moom bu te fi masaa jot ni ko sëñ ba si daa def la ko daa def koor bu masaa jot lim lim ci daa def la koy def tamxal bis it yëpp ba ci gàmmam gi nga xam ni sëñ Tuubaa ko daan defal moom di fi berndeel nit ñi ginnaawam sëñ Basiir di ko def ci ma fekkee lépp ba mu ñëwee it noonu la koy defee ba fii mu toll ba ci gàmmu rek jaaroon ñi li sëñ defoon da koo yokk waaye ko lu mu fi defoon rek bu defoon benn def na juróom-ñeentam wala fukk loolu li ñëpp mën na koo ñu bari mën nañ koo seet ci waxantu mooy li ma li fi bokki taxul mooy wax ko damaa wax sama diggante sama tayi bàmmeel li ma xam ci moom fii ci kër gi fii la daan nekk heure yi la daan génn daa bàyyi nañ ko ba di ko annoncé ci rajo bi onze heures lay génn ba midi ngoonee bu génnee ba julli timis waatu amoon na kër boppam gu moo goo xam ne tey ma nga ca mbudaay foofu ba fi sëñ bay ne foofee la daan dal sëñ Moussa Mbacke tey ab taawam moo ca ne tey daaru salaam mu tegoon fa sëriñ basiiru mbàkke tip ñu gën ko xam ci sëriñ basiiru mbàkke seeni mi nga xam ne sax mooy actuel maire de la ville de Typ moom ak rakkam sëriñ Masamba Mbàkke ak Kaolack mu tudde woon barab ba Touba Ndorong Sagata mu bàyyi woon fa sëriñ bu Mbàkke doomam at magi ba ya fa nekkoon. jëmmi Touba Kajoor sëñ Bachirou moo ko sanc 1938 bu ñu koy sanc fekk na mu daa ñëw ci fii ci geer daa dem dëkk bi ñuy wax ndaam ci bi ñuy wax ma nekkoon fa te xeeb sëñ bi may indi fii dafa ma wax gi dañ koo defal rom egg seex ma ci lool ndax ma nga tàmbali woon ci ay maam ak i baayam baax ci moom mu féete woo ko def ci lii bu ci def ma bañ ah, mu rab kenn di ma kenn kenn kenn di fi jaar di ma yedd laa boo léegi xam ba fekk suñu bisiru xamul ma koy laaj moo tax ma indi fi aboo mii ak ndeyam ndax jëmmi kër gi damaa ñor ak daaru salaam kayel fi nga xam ne moom Cheikh Mamadou Moustapha fa la gane jamono nga xam ne gannaaw bi waajuram daf ko joxoon sëriñ Moustapha Lo Abdourahmane Touba Saloum ñu gën ko xam ci Buleel mu bàyyi woon fa Serigne Abdou Lahad Mbacke doomam Kaffrine mu bàyyi woon fa Baye Modou Mbacke ak magi taalibe yi mu àndaloon liggéey bi janaabu

mu bàyyi woon fa doomam imaam Serigne Cheikh Fatma Mbacke ak magi taaliba ya fa nekkoon ñu daal dundal barab ba. këram gii nga xam ne mooy géejawaay mu tuddee ko Daarul Minan bi mu koy tàmbali dafay indi doomam di jëwriñam di Serigne Moussa mi nga xam ne tey mooy tawam tooge jotaayam boole ko eh, liggéeykat yi muy dongo yi mu taxawu liggéey bi man ñii mu indi ma fi ah, ngir jàkka ji ak lépp loo xam ne taxawaayam moom la war a taxawe bu fi nekkul ñu taxawal ko bi ma ñëwee ñu jël matériel bi yëpp teg sama loxo ne ma lu fi waaye jël na nga ko bind luñ fi diwal nga bind ko kon xam naa lu baree bare lu dugg ci kër gi eh, ndax maa ko doon bind ak dëkk bi ñuy wax puut aw bi bi munyati fasaka ala al mawla al karim alayka صلاة منه ak beer ak bambilor mu tegon fa domam serigne cheikh awa balla mbacke mu and ko ak rakam serigne khadim mbacke ak magi talibe yeñ ci andalon ñu da dundal barab ba piawon mu tegon fa soxna fatim mbacke mom serigne abdoulatif ak bokk yu magi taaliba ya fa nekk ñu daa dundal barab ba fii ñuy ñëw tey e, mooy kër Cheikh Moustapha moom Cheikh Madou Bachir ci Tivaouane e, muy kër goo xam ni mi ko fàggul boppam gannaaw Serigne Bassirou Mbacké ngir wéyal yéene Serigne Bassirou Mbacké fii ci Tivaouane def ko muy këru jullit yëpp waaye def ko muy këru taalibe yëpp defoon ko mu keur Serigne Touba ndax mom Cheikh Ahmadou bashir momu fi ci Tiwaawan moy domi Cheikh Ahmadou Khadim ji nga xamni ni won na fi keur lolé nak gannaawam bi mu démé ci atum 1966 domam di ab tawam di ab talibem di ko xamni moko yaral bopam di Cheikh Moustapha mu Cheikh Ahmadou bashir ci la wéyale bëgguk sëriñ Bassirou googee ba tax mu fàggu kër gi euh, bi muy fàggu kër gi nag boobu dëkk bi àgg ak siwul fii waaye moom ci gis-gisam euh, xamoon na ni dëkk bi luy jëm kanam la luy gën a yaatu la euh, doomi sëñ Tuubaa yi fi fanaan takku na lool ak i sëtam waaye njaboot googu ñu tudd di Tiwaawan di jabat maam maam maam El Hadj ci maam maam El ñëw na fi ay yoon yoon fekk fi Cheikh Moussa Bachir euh, Ndiassane ñëw nañ fi ay yoon fekk fi Cheikh Moussa Bachir loola nag la ko sabab mooy sëñ bi saa yu masaana ñëw fii ci këram gi day jàppe boppam ni dëkkandoo la ci Tiwaawan ba balaa toog day dem nuyu ji bokkam yooyee ba ñu ni ñëw na mu soog a ñëw toog tàmbali nganam murit yëpp fekk ko fi jullit yëpp fekk ko fi noonu rek la daan demee. ngay mu bàyyi woon fa doomam Serigne Makhtar Mbacke ak magi taalibe ya nga xamante ne bii ñoo àndoon ak moom liggéey bi Louga ak caar jëm mooy bàyyi woon fa doomam Serigne Fallou Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Fallou caar ak magi taalibe ya fa nekkoon ñu daa dundal barab ba Thiel Maha mu bàyyi woon fa sëriñ Moussa Mbacke ak magi taalibe ya fa nekkoon kër Momar Sarr mu tegoon fa sëriñ Issa Mbacke ak magi taalibe yam ko àndaloon xam naa ne seetu sëriñ Touba yi ñëpp a baax waaye c'est Moustapha Bassir Mbacke def ci ràññeeku woon ci mbir yu bare bare bare bare ndax ñun ñii tey dekk Kër ma Sarr Cheikh Moustapha Bassirou Mbacké mooy suñu porte d'entrée pour ñu jokkoo ak kër Serigne Touba ci lu bare bare bare bare man maa ngi nekk président communauté rural en 1985 tool bi ma jëkk a maye ci communauté rurale Moustapha Bassirou Mbacké laa ko may boobu bi léegi maa ngi maye tool masante ko yàlla bon tool bi nekkoon juróom ñaar fukki hectare ci dëkk bu tudd Kër Yërim ñu dem ba jamono mu ne ma jumooru tool bii wuutuma ci kaalis yàlla def ma kiir ci mbey li fi indi mooy dafa am ñoo xam dañu yaakar Serigne Touba jël seen jabot jox ma ma bëgg am fu ma wéetaax ñoom jangal leen liggéey jangal leen Qur'anul Azim jangal leen kan moy Serigne Touba ba ñoom suba tek liko wax ñoom ñu mëna yoré yore seen bop ndax ku am kam-kam Qur'an té amu jappo dara mën nga bay li jang bi nga dem wuti leneen waye so jangale nit nga jàngal ko nu muy liggéey am dara nga jàngal ko nu mu xamee yàlla ak nu muy xamee Serigne Touba su fa jogee dana mën a yore boppam te du tooñ kenn bi mu fi ñëwee li ma ñu jëkk gumloo mooy murit ak tiijaan duñu ay noon ay mbokk lañ yow bokk lislaam bokk di julli bokk di jàngale lislaam fii ci kër Momar Sarr ràññee na ko ne ci suñu bopp ak suñu diggante ak moom ak njabootam nit la koo xam ne kii ku yàlla bool ak moom benn saa boo jógee ci moom da nga mën a yore sa bopp ci saa yu bare bare bare bare ci wàllu xam-xam ci wàllu doomi aadama ci wàllu relation ci wàllu communication ci wàllu sensibilisation wàllu yu bare bare bare wallahi yàlla xam na ko jàng nañ ci moom du bare bare xam ne tey moom la ñu wéyee waa jàngale diggante ki béy sama, ye ko nani sëriñ bi jàngalani ci li jëriñ doom adam muy muñ di jegalante di waxtan pour deggo am ndax nekkan fi be joge fi musul jappante ben sam ti fi rew sàmmal li mu ñu jàngal ak sàmm ndax amono nak nag ma la ñing moko ko man demay jamma demay demay ñu ko jangal loolu lañ jànga ci moom kenn ku nekk ba mu nekk fii gum nga ne ndekk mbéy du rek ay mbir moo xam ne teguur fenn gannaaw Serigne Moustapha Bassirou Mbacké surtout Serigne Touba moo jóge Touba ñëw fii di béy di jàngal doomu aadama ni ñuy béyee di jàngal doomu aadama ni ñuy toppee yàlla ak ni ñuy moytu lu bon kon kenn ku nekk da nga war a béy Ross Béthio mu sampoon fa Serigne Mouhamadou Abdoulahi Mbacké doomam ak magi teel bi yam àndaloon liggéey bi Bambey mu bàyyi woon fa sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ak magi taaliba ya fa nekkoon fii ñuy wax Mbàkke mu bàyyi woon fa soxna Ami Mbàkke moom sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi ak sëriñ Basiiru Mbàkke doomam madinatu salaam mu joxoon ko rakkam son excellence sëriñ Ishaq Bachiru Mbàkke bustaan mu bàyyi woon fa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke mi nga xam ne mooy ab taawam ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Njool gannaaw ba mu jiitoo mu wutal ko fa sëriñ Moussa mu uufal ko njaboot gi njabootuk serigne cheikh gamu fa baye te ka nek ci bop ba di tawup serigne cheikh njool muy serigne abdullah mbake nawel mu sampon fa serigne moussa mbake nawel mi nga xamantene bi moy actuel khalifa serigne moustapha basiru ñu ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko mu andon ko ak magi taalibe ya fa nekkon serigne moustapha basiru mom lo wax rek da nga bay ci mom dara te la nga ci xam lu neew ni sa morom da nga ci bari lu ko ko gëna bari li ñu ci xam nag moom mooy nu nit man bi ci man bàcc ngoom bi ma ñëwee naawel gii ah, wax dëgg yàlla maa nekkoon jëriñ bi mag ji biñ koy sanc 82 boobu it ba ku ñuy wax ba Aliou moom la ñu boole mu nekk suñu jëriñ biñ fi ñëwee itam fekk président communal bi ñu fekk mooy Mor Diop boobu it wax dëgg yaatal nañu dalal nañu ci tool yi nga xam ne Baye Cheikh saar moo ko fi jox biñ fi ñëw itam suñu borom dogal na sëñ Modou Laye Mbacke moom la nu boolee loon mu nekkoon suñu jëriñ dal dal kër ba Aliou Guèye luy góor-góor bi gor bi ñu ngi ko gor ci 82 1982 boobu it am na ci tegtal yoo xam ne nii ñi nga xam ne ñu daa indi jëli nit ñi ak di leen delloo ak diggante nag yi ñuy rey ak lépp wax dëgg bàyyi Moustapha Dieng mi si Abdou Dieng bokk na ci ñi daa ànd ak oto yi di leen jëli ci dëkk yi di leen indi ñuy gor gor bi gor bi suñu borom dogal na biñ ko tàmbalee sëriñ bi indi woon na fi fukki ak fukki nag ak juróom nee nañ ko def fukki bés ak juróom daara ju ne ñu jox ko ab camion mu gor ko camion euh, tool bu ne mi nekkoon ñaar fukki ak benn bi suñ borom dogal loolee la ñu di ko toppatoo di gor di ko gor ba gor bi àgg ah nun ñii suñ borom dogal nu saxal na fi mu ci jëriñ yi man mi di bàcc sëriñ Bàcc Ngom ak sëriñ Mor Seck ñii ak ku ñuy wax sëriñ Moustapha Guèye ak Bassirou Sine ak Bassirou Touré ñu juróom ak Modou Diakhaté ñu juróom benn daara Gossas mu bàyyi woon fa sëriñ Ahmadou Mbacke ak magi taalibe yi fa nekkoon gën gi neew mu bàyyi woon fa sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke ñu gën ko xam ci sëriñ Moodu Kara Mbacke mbuur mu yóbbu woon fa ab sëtam bu ñuy wax sëriñ Moustahine Mbacke mu àndoon ko ak magi taalibe yi fa newoon di dundal barab ba masaka ala al mawla al karim yasiru Dofan منه جل مسلما مع الآل والأساب ndofan mu bàyyi woon fa mam balla mbàkke ak magi taalibe ya fa nekkoon kër ma jabel mu tegoon fa sëriñ cheikh ibra mbàkke ñu gën ko xam ci sëriñ lamp mbàkke poroxaan mu bàyyi woon fa doomam ju ñuy wax sëriñ basiru mbàkke poroxaan moom ak rakkam ju wax madina دارو تمور وخني من الفجار والبحر غانما إلى البر نيوخ شيخ محمد المنتقى مباكي ميغا خامتاني tay ji mooy xali général des mourid ñu ko ñaanal suñu borom yàggal fa féeteeg tool ya mu tudd Daaru Salaam mu bàyyi woon ko ak doomam bi ñuy wax Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke mu àndoon ko ak magi bi yi. waa dëkk bi day ñu ngi ko sanc ci 1967 1967 bi ñuy ñëw fii bi sëñ Moustapha di jóg di ñëw fii dañoo dal dal fële ca dëkk bu ñuy wax Odiolde digganteem ak dëkk bi tuuti xaw naa ma ñetti kilomètres foofa la ñu dal 1967. ba génn li ko nawet ba génn ko 68 door a ñëw fii ci Daaru Minam ñëwee fii 1968 boobu fukki borom kër ak ñeent ñoo fi da fi ñoom la ñoom la àndal ñëw fii sëriñ Touré mi taxaw ci sama wet fekke na ko moom ci ñi fii sëriñ bi indi at moom ñi fi jëkk la ak bàyyi seex ñu nii doon rooti fu ñuy wax ojalte teen bu ñuy wax ojalte boobu fii amagul ab teen root nañ fa ñeenti at door a bënn teen bee ngeen bëri nga xam ne bii moom la ñuy waaj a seeti ci 1971 boobu mooñ ci bi ñu rootee ci teen bi su 1971 ba 1980 ci la ñu bët bët euh, forage bi 1974 fii la lañ ko def communauté rurale 1974 mu def Cheikh Cissé président communauté rurale bi bi ñu fi sanc nag wax dëgg yàlla jànkoonte ne ak jafe-jafe yoo xam ni su fekkante nu jàmbaar dana daw mbaa ñi mu àndal daw waaye ku ànd ak ku dul daw doo mën a daw suñu sa mënut a daw mënut a dellu gannaaw faju rek neexu fi war a defee barab bi bi nu fi ñëw tëriñ bi daa dindi ci boobu moo goral mooy colonel nasroog tiib waaye sëñ bi da caa bi ñu xamee ne euh, da caa di téeméeri nit di fukki jawwin jawwin bi ne fukki nit ki nga xam ne moom lañ jiitaloon moom sëñ Fallou Dieng la tudd teg ca ku ñuy wax bu Ja ñu teg ci ku ñuy wax Basiru Sëy tegaat ca ku ñuy wax Mbàkke Tura tegaat ca ku ñuy wax Góora Njaay ñu toog caa doog caa teg euh, Cheikh Fall Guèye doog caa teg ku ñuy wax Sëriñ Ndiir docteur teg ku ñuy wax Paate Fall ak ku ñuy wax Modou Mbay man ñu fekk ca kaw nuy fukki daara daa jóge buñ fi doog a ñëw nag àll bi daa naqare lool moo tax ku ne ñaar fi bay ñoo fi jiitu kenn ku ne am an boole na laak euh, euh, juróom-ñaari mag ñetti gone muy muy fukki nit nga xam ne seen boole daal téeméeri dong daal ñoo sañ ci dëkk ba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وقلبك على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك على سادات النموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات الشيخ محمد المصطفى ابن الشيخ محمد البشير كان منكو جيحل تاخ جيجل دي مو الاسلام لي مو ديف سي لو باخ كين منو كو جيهال اي وقتو kenn mënu koo jeexal ci ay bis ndax dundam gépp ci lu baax la ko nekk bi mu xàmmee ba nim fi jóge bi muy làqu euh, diisoon na waaye gannaaw gi ma dalale sama xel ni ñoom duñ fi jóg duñu fi jóg ah ndax lool cër boobu la leen yàlla la leen yàlla dëgg la nag bàmmeelu yonent bi sax boo ko tiimee la ngay njëkk def mooy ñaanal ko waaye teewul nag nga xam ni leeram ba ba àddunay tukki du fi jot ñoom seen leer ba ba àddunay tukki du fi jot diis na ma lool. waaye damaa xam ni ginnaaw waajuram wu tedd ba dem na. seexal xaddim ñu yaakaar noonu. kuy liggéey faaw nga wàcc. sëñ Moussa Bassirou moom man nga ne ma am na juróomi at yoo xam waajal na boppam bis bu defe na day man day la war a dem. yeesalaat testament bi mu def lii laa bëgg ñu def ko nii lañ ko war def waaj ba nga xam ne moom waxtu wu yëfi ñëwee rek fekk na noppi ne loolaa waral la muy guddi guddi ba mu accès ñu ma a def lépp ndax defoon na lépp amatul lu ñuy defaat waaye loolu lu koy waral foofu da nga faa jëfut looy ragal da jiital loo xam ne xam nga ne ngege naayeen lañ la loo xam ne boo ma da ngay tëdd rek nelaw jëmm ju mel noonu bu buñ ko dee gis ba ci mu yàgg ko ah bët yi dana dana wéet xol yi dana xaw a tooy waaye it nañ am njàmbaar gu toll ne ci liggéey la nekkoon te liggéey boobee da ko war a sotti ci ay loxo te loxo yooyu dañ ko war a àggale liggéey boobu lii mooy li nga xam ne moom responsabilité bi moom la ñu yëg jamono bi nga xam ne sëñ Moustapha tàgg mi ngi nuy tàggu ngir ngir war a wàcc ci liggéey ndax moom kat da daan wax ne ku nekk ci tool da ngaa war a xam da ngaa yàq war a wàcc ba dem añi loolu loolu waa loolu yu mel noonu la la ñu daan duy ba ba nu fees ba nga xam ne buñ ko gisul itam dañuy xam ne daa wàcc liggéey dem añi rek la ahli tariqati hazmun bil haqiqati wa min lawazimiha minhajuha abadan wa hiya shari'atu fi batin wa ghayati wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'a al wafa'i bi sidqin fi al uquwati والكل من جملة السادات دورة بن يكفي المريد مريدا ذا غواياتي كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالاتي منهم مرق بحال وحدها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات dafa fekk lu ma lu لما bett la ndax ni ma ko yëgee ndax moom yàlla daf ko suturaal ba tëddut li ma ci am la ci ñëpp am ba ci ñun dëkkal ci biir këram waaye li tax mu metti mooy loo foogut yaakaaroo ko donte sax jullit nga xam nga ne suñu boroom xam la ne ne kenn du fi sax waaye moom meloon na noo xam ne doo ko mën a foog ci waxtu woowu ndax ginnaaw ñu baax ñi fi ñi ko jiitu ñëpp dem nañ xam nga ne day dem boo ko yëgoon ci tawat wala nga yëg ko ci leneen du gis waaye yooyu yëpp amut moom dafa mel ne ku bëgg a dem rek dem. man seet naa ko bis mu ni man de li ma sant yàlla mooy bi bi bi bi bi ma daataan am gàllankoor ci sama jëmmi bopp fekk na lu ma bëgg a liggéeyal Cheikh Abdoul Ahad liggéeyal naa ko ci Sëriñ Tuubaa ba كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وحدها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي ذو هدى وسخاء يمضي النصيات في كل البريات am na am na am ci inna nii wal tubashir bi al yataama dawaaman ansihim bi abaahum kulla xiini mas naa ko wax ne ko mbir boobu ci yow laa ko dégg daal na ko it bis Abdou Diouf moo fa doon ñëw mu taxaw ngan nga ba ngan nga jeex mu woo ko mu ñëw mën ko sëñ Moustapha mu ko Mbakke mu ko sant naa la gërëm naa ngan gi de gis naa ñëpp ñi ma bokkal sëñ Tuubaa kenn disut sama doom yeeg ñëpp gis naa leen ñax ñax ñax ñax yoo xam ne mi ngi woon ci diggante yi bay nga ko ba lépp set waaye la ma la cay fayee nag ba yow mal xiyaamate bu sëñ Touba teewee moom Cheikh Abdoul Ahad ci mbaakool la bokk añum mbàkkol gépp ci sa loxo laa koy teg tuuba li abdin muridin saadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati naanu bi xafi rasulil mustawa rutaban sala alayhi alladi yuti almaziyati bokk na ci ñi nga xam ni wala taxsibanna allasina qutiloo fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yarsaxuun ca la sëñ Moussa Bassirou bokk la tax sëñ tubaab laal boole ko xam am nga ngërëmul ki la bind lool doyoon na muy sunu borom tabaaraka wa taala mii am ngërëmul ki tax na bind la am ngërëmul sëñ Tuubaa am ngërëm sëñ Mor Basir sama jur am sama ngërëm loolu kenn atunu ko nag waaw ah, boobu yéen kat kon ko yéen te ah, ka ko yéen yan bi mu mu mu njëkk def ni moom dinañ la li li mu dégg ak li mu am ak li ko may ah, nit ku baax ku ko suñu borom cërale doy na ci àdduna doy na ci àllaaxira mu jëm. naan naan noo ñaan suñu moom dimbaluñ ci amul saa foofee mu nekk lam fa bëgg lépp suñu moom defale ko nu koy jotam waaye fi mu wàcc liggéey bàyyi bàyyi fi jabaram gi nga xam eh, kenn ku si ba tey ci moom donte ab la wala muy ko yàlla foom itam mel ne tax yoon wi borom am ci bëgg ma nga ca moom ñaan suñu moom àggale ko yéen yooyu yëpp. waaw dama nekk ci màggalu Daaru ne ma yëngal fa ne ko lan mu mu ma sëñ lu ma wax. xam nga nit boo ko bëggee. te dafa sa xol. bu ngeen ngeen jaxasoo jaxasoo xam ne adduna sëpp xam ne jaxasoo ngeen. faaw seen biir day niroo. moo tax mbéem dafa niroo ak seen seen aw doxin. ndax mom rek moko ko ñoroon aw dox yi mom rek ko ñoroon loye nak mo feñ ci diggam ak sëñ Abdallah ci walu dem gi Abdallah mu Lahad di ngeen nam demé won momit mm-hmm. di dégg ngeen ni mu demee bi mu faqidul islam la wal watani wal iradati was sharaf <laughs> waaw islam ñak la bimu demé ku rew mi ñak la ndax kat la ku taalibi gi ñak la ndax li mu doon doxee ci yoon waaye ku honneur ñàkk la yooyu yooyu bi mu demee loolu lañ ci jàngal salaatu haadin hadaahum li istiqaamaati ala almukarrami xayri alxalqi kullihimu salaatu mugnin jasaahum xayra xayraati alay abqa salaatin bisalaami maan fi alihi alxuri turran kulla awqaati daayira maam jaara yu Kawlax biñ tasee ñëw di ko siyaare ñëw ni ni soxna soxna yi euh, namoon namoon namoon ngeen maam ñu ñu ñu ko ñu waaw kañ Mbàkke leen maa leen maa leen raw maa leen raw man mi man mi ñëw seet si leen euh, keroog itam ñu bari xam nañu euh, sëñ <laughs> yal nañu ko yàlla fa yàlla Cheikh Mahamadou Moustapha bi mu wàccee liggéey bi ma ko tiimee soo xamal ne ko jek na ànd ak yow waaye jek na it ngir toog liggéey lu ci am ci moom so mu bàyyi ma fi alhamdulilah rabbil ma nek ci loolu وحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا الى المولى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا ذكر هند ولمنا في المقالات قوم بأصلحة أعداءهم قهروا أتعالوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد ذا من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفر عناتي من توبة قدمت قوف الرجم معه إكثار حزن دواما بالقناعات وزود في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء ردا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عسرة جاد لوازمها لابد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها دليل كشيق ذي فتوات والزاد وهو التقى منها سلاههم وهو الهدوء الذي يمتلك